Assalamualaikum, siar na la yéen ñëpp si nag si turam ak santam di len jox sen waccu waji na len am len jam dal dal ndo jam si barki sayidina Muhammad fasiyene def waxtan comme d'habitude rek di nan da na len yalla defaral jam, ñu fas yéene commencé si rahim pare ko ci alhamdulillahi rabbil alamin les réseaux, Je vous avez dit que les réseaux là, attendez, parce que les que les soo ko Sénégalais vous koy xaar c'est pas possible. c'est te te te les ah les dëmmaa le général. mais dara gënul ne ana Coura Macky c'est te te te te yaa salte Coura Macky cambayam dangaa bëgg a jarbaat rek fu nekk nga génn fa Moussa Camara sa tantala Moussa Camara maak sa yaay jarbaat bii di nga ko bëgg a yeb bi mu tëla billaay wallaay Camara c'est te te yow di nga bëgg a yeb bi di mu tëla yaa de yaa gàddu jarbaat nag yaa du jarbaat deg deg deg deg deg deg deg deg mais tante salte nga tante yaa salte tata tata tu es tata tu sal tata tata sal nga tata réew nga mais tata salte nga tata no mënee lii tata tanta tanta da ngay wàccu di lekkat day la tanta de ngi di oppooge di lekkat kenn xamul lan la si te te te te te te eh tanta tanta tanta am nga jarbaat doo yow jarbaat bu ñëpp bàyyi yow nga jël billaay jarbaat bu ñëpp di daw jarbaat bu ñëpp bàyyi ja gaay ah, man samay tante du may làqatu du ñuy eskiw du ñuy eskiw ñëw du ñuy ko naan booy bii kii ki nangam non mel ni que da doon xaar ay waajuram wàcc pour mu rakkaaju wala kenn xamul lan la ñoom ñëpp mooy loolu du ñuy eskiw de mais yow daal kura yow daal naka jekk yow yaa ñëw fekk xam nga ab dof wala ab mbam bu nek si yonam di lijeenti nu mu mën a nit yow nga ñew nga ni nga am nga tàntoo ko am nga problème am nga problème tante comme da ngay wacc di lekk tante da ngay wacc di lek tante ya salté mais tante ya vulgaire mais tata mais tata mais dido oh, ah taxawoo démb mais Françoise Hélène sa dóor yi bul ñi tata de moo taxawaat encore moo ñëwaat gën naa ci wax gi ba mu set tata yaa aay mais tata cee forte mais tata moi ah tata tata vulgaire nga tata réew nga tata xolol modde nga tata xeesa nga pecc nga tata xolol illettré nga kon nga comme waa léegi xaaral su nekkee yow da ngay di waccu di lek yow ñaata ci sa genn ak sa live ak sa intervention yi ni lan war a lekkaat ah, tata lan wala xolaat pour nga lekkat ko tata ah eh eh eh ah. Merkuro <laughs> way non mais meeku na Macky kenn du moom quoi nee naa la sunu meeri modde yi ak illettré yi mbaam yi wàcc si terrain bi si combat bi nii dinañ nu rey ba du dee. billahi cette bande d'illettrés là cette bande connard là nga jël seen bopp daa di ko teg di ko jéem a xam nga di di meurtrier wu si kaw nit ñi dinañ nu rey mu jeex. a saa kuréel Macky et consort la ñoom ñaar ñoom yéen ñaar laa njëkk jëlagum xam ni que yéen moom oh nee naa leen andi leen débat en c'est ça le truc andi leen débat am leen lu ngeen wax quoi en fait andi leen lu nit ñi mën a comprendre que yéen a ngi koy wax nit ñi koy dégg kenn comprendre cette bande de dilettrés là ñoo kidnappé nañu non non non non non non mais kenn du Kouromaky Kouromaky Kouromaky toj nga fi xoolal Koura maa nii de. ah si buntu kër gi laa toog kër googu noonu nga newoon nga visité maa ngi nii de toog déggoo lu ma c'est pas beau de ci sa xolal xolal xolal ay sa yi nii garabu garab euh, euh, euh, Françoise garab bi laa tuddee Françoise xam nga lu tax ma tuddee garab bi Françoise xolal soo xamee Françoise yaa ngi nii ay Françoise lay saxal gis nga sama garab bi ay Françoise lay ay Françoise yu ndaw ñoo ngi di sax gis nga garab fii laa daal xam nga waaw maa ngi nii toog waaw buntu gaale googu doon nga visité voilà ñëw fas yéene ñëw toog waxtaan ak yow tante ne la tante yaa bëgg lu bon kura kura maki dangaa bëgg a jarbaat waaw masa ma di wër di duul sa ndey laa maag sa yaay sa yaay sa di duul nee naa la sama yaay doxatom doxatam sax mo la gën doxatam su rombon sax fu mu romb billahi ba romb sax yow so fa rombé kenn dula bëgg billahi tellement ni que mère da nga modde hein eh, légui nak né nga ni que da nga raflé ay ay jarbat no du da nga da nga raflé ay jarbaat su fekkee day jarbat waaw ah, Moussa Camara ni ni ah waaw tolu man nga ñëw jarbaatoo dinañ ci waxtaan de dinañ ci waxtaan parce que légui waxtaan gu ñëw andi andi ko ci affaire gi mom moy kura maki, lu nga doma rami maki, lu tax nga nek imbécile maki, Macky lu sa tati yi sa ndey geeg sa njabot gi si dara foog chaque jour ni kat sa nday pour que ngay mën dégg en tant que une vieille de ton ami wax ngay paj ki di tepp ki di yuxu di dal ki di ndar ndari kura maki yow du no bëgg nga xamal la du loo bëgg xamal dara da nga walar yi yam ci kuddu nu roof la ci gayen la ni wa xawm nu lan ngay tepp di dal nga fogg ne ni ke yow amna ko fi mëna jital wala ko mëna tok ci bopam wala ko mëna konkon xam nga lan man dina len wax ben affaire yéen ak sen bande maire maire waaw maire dépayassé non non maire dépayassé yoy non dina len wax affaire c'est pas parce que amna ay position yu ma am ci jigen wala kay nangam ko duma xorom sen day yeen sen jaaru mer yoy non yeen yeen ay exemple yu nu wala def kat sen day bu ba parce que lutax vous faites la honte des femmes vous faites la honte des femmes fu jigéen ni di di jéem xol nu nu samé sen njaboot nu nu fa nu nu samé sen sey yéen yéen ngi nday ci mbedd bi yore nday sen gemi di saagalu nit ñi di saga nit ñi ak i di katalu nday nit ñi ba pare ngeen ne da ngeen bëgg non respect ken du leen jox cottu mbem kat sen day ba ngeen taxaw la ni def muy yow Coura Macky yow nag bëgg bàyyi comme lu ma koy waxee tu es en train nu koy waxatee de vouloir t'amuser si benn genre jeu boo xam ne comme nu ma ko waxee su ma la si fekk dinaa kat sa ndey ba nga taxaw cent ans quatre dimanche di nga xam koy waxal kan la di nga xam koy defanteel kan la nee naa leen réseaux sociaux yi nii su ngeen amee lu ngeen di wax wala lu ngeen di jaayante wala lu ngeen di teg da ngeen di génn ngeen daal di ñëw tegal nit ñi lu nit ñi mën a wax lu nit ñi mën a dégg ak lu nit ñi mëna xolal daa di ci mëna japp wax ci euh, avancer mais nek fi ni bëgg a emmerdé wax tëbee eh, eh, eh, comme ñu ngën waxé lool non fi ñëpp ko mën lu ñëpp ko mën ku ngën ci woonu wuyu leen fu ngën ci dem nu fekk si leen seen reewande bu ngën nekké nak seen connerie bu ngën nekké ci biir affaire ñoo leen ci bàyyi ñoo leen ci bàyyi té man comme nu ma ko waxee man nekuma fi ni pour du dencal kenn duma ma yéelu kenn dara moo tax ma naa leen ku si am looy wax si man na ko si génnee teg soo paree su may ñëw damay doxaan sa ndey ba nga taxaw nekk nit parce que seen reewande boobu noonu mooy lool seen dàqum dépense bi seen dàqum dépense bi ngeen wala bàyyi seen dàqum dépense bi ngeen di utee si ginnaaw sénégalais yi ngeen wala bàyyi yow Coura Macky yaa ngi noonu raté sa life lépp nii wax nga naan da nga koy dàqee dépense si ñun di leen kat sa ndey yow bëgg bàyyi xale bu ndaw bu tool ni yow katal ndem dem ñak ji demal uti ji nga naan da ngay jema tek le malin do am katal ndem ciotu ndem do ko am yow yow bëgg ba yow toogal gis nga lu nga so lu nga lu nga jot lek lu nga lek as tuti lu la jot a nga lek ko si yow boo da nga am ko so wërsëg nga lek non jeex nga si fa ngay yem do am ciotu tun yow da nga dugg ci gal bo xamé ni ko di ko bëgg mu wacc la mu teul parce que comme ko ci l'impoli di concon lu ci kaw nit ñi dafa jinné japp la xaalis la fi taxa ñew jéem a lijjante jéem a xool nan la nit ñi di def pour di la jéem a yor fii am nekkuñu fii pour di yor benn ndey gros gaillard nekkuñu fi pour di yor ndey benn gros gaillard yaa ngi dégg lu la wax voilà léegi nag nu avancé ko ba si seen ndey Françoise Hélène seen ndey Françoise Hélène moo ngi noonu Sénégal di taxawaalu di duul morpion mi le les petits cons là les Laye Ndiaye là et les Laye Mbaye et les consorts là nen leen woo en laj la ñaata len lek ñaata len lek nek ci réseaux sociaux di kat sa nday di am lu ñuy wax ñaata leen lekk amuñu si cottu ndeem lekkuñu dara lepp Françoise Hélène dem na noo seen ndey xaalis bi ba paré bëgg jappé nday nit ñi ay con yeen da ngeen wala toog ngeen yé sen bopp lu fi Françoise Hélène di def yépp ki di taxawalu di ki 6 millions mënu ko def 6 millions du xaliss

ces personnes qui prennent des millions di ko dugal si suuf pour jox ko une garce comme ça Mougen, parce que c'est pas l'argent du contribuable nit ñooñu di kaas tey wala nit ñooñu ñu génne nekk si audio yi di wax ni ki du seen xaalis seen xaalis dem seen 1000 francs 1000 francs 500 500 et de 6 millions De 6 millions Amna ku nek ci ginnaw amna lu nek ci ginnaw di génne un argent bo xamné ni nii que kenn xamul si fan la jógee lan moy basé que leen kii ñu koy blanchissé di ko jaarale ci ñom ñom ñuy génn di këy këy nan la jënti ji lolu nañ dem li jënt ji loolu bu nu kenn jàppee ay dof bëgg noo keppee ay mbaam parce que yaa ki nag non six millions yooyu noonu ñu ko cotiser leen bëgg a xam ñan la ah non plateforme la ay affaire de kii xam nga la moo gën a dee ñun def nañ licci def nañ ay platform cotisation ba mu jotee nu waroon delloo licci bi plateforme ba nu demee képp ku cotiser woon duñ faa fekk sa tur noo xamoon si ban plateforme noonu leen def nu xam képp ku waroon jot ak xaalisam nu ko xaalisam donc su suñu amoon plateforme bu économiser ba mu am 6 millions plateforme bi war na am trasabilité ñu yónnee war na noo gis seen tur war na noo am reçu wala facture Western Union sax depuis dëkk boo munti nekk soo Western Union ne kuy dem jël dina ko xam ne que Western Union la su nekkee Wave dina am code su nekkee waaye yow Orange Money dina am code dina am kii de transfert yaa la xaalis daa am naan trasabilité xaalis mënul juk rek ñu daal di ko ñëw rek def ko si ay somme teg ko te amul traçabilité Il faut trouver les souches de ces financements-là. Il faut aller se poser des questions. Qui finance ça pour que maintenant ces connards et ces garces n'aient fini de nous emmerder Il y a quelqu'un qui est derrière ça. Ou bien une bande d'imbéciles qui les finance pour que nous n'ayons fini de nous emmerder. C'est ce que Mais ce tant que Françoise Foul ba paré sou foowee ba pare ba Il ba ñëw toog nag ba commencé waat kekkantu c'est là les choses vont sortir. En ce moment, ils sont en train de s'amuser. Les langues ne vont pas sortir. Nee na yaa yo yo. keroog live non. Bo dougal xaw lan euh, euh ñu koy waxati live bo dougal Adji Sarr ay la ma def ay la ma encore une énième de fois Nous l'en di histoire de tat. histoire du taat yu bonne. nous. inu hein, histoire du tat nous nous histoire du tat yu nous sàcc du si live Dou si ay audio du ci ay affaire de reewantalu si loolu ngeen koy fajé xam ngeen lan moy wax gi histoire taat bu nu bënd da ngeen wala mëna andalé preuve yu wonani ni que taat bi bënd nañ ko loolu lan lan wax sen millions yi ngeen dajalé wax gi taxaw ki bi yëpp lu ko waron out avocat moko jaron out avocat fexé ba démontrer par A ou par B ni que danoo bënd sen taat yeena ngi comprendre que bënd nañ leen mom mom moo mom mo amone yité wu dox jamono ji

si bëgg a génn xeexal loo xam ne ni que yéen amoo leen si lu ngeen di jàpp pour xeexee ko tey jii ni lu ngeen bëgg xeexee mooy lan seen làmmiñ amoo leen tey si lu ngeen di jàpp pour xeexee ni que bon si lii leen jàpp moo waral non nit taxaw na nee na du ma violé rek ngeen daal di yee ñëpp da ngeen di gën taxaw léegi nit ñu taxaw tamit ne ñoo ngi ñuy sàcc lu tax pare woo leen génn taxaw

nen seetaan wax gi instant gii nii du neex instant gii nii hein, c'est le rumboxloo ku nekk di jéem a kii ça va être encore plus drôle ça way su noosee ba pare ba delu ci ba ñëw tok ba yeneen affaire yi génn ba ñu wax leen ñaata la encaisser ba mu fa duggé ñuko accueillir ñu téggu ba wax gi génn ba affaire yi fuite commencer commencé c'est là encore il y aura encore un autre discours yeah c'est là où il y aura encore un autre discours aji sar gene daal ah man balaa may dee sa laaj la ma def i Françoise man daal Françoise Françoise François yàbbi nga lokk puubu jàmbur yi nga seex sa gémmiñ yi sa gémmiñ xeñ na waa ma puis may wax muy roulé ay mais François man François ku yéex moom ma puis ma puis is that non mais unbelievable may wax tamit eh Adji Sarr génn fële waaw maman <laughs> mel ni ku yow yow ta yaay la may sonn taat yow yow du kooku yow maa ngi lay sant ay kii jóge ba léegi ba jóge ba États-Unis ñëw di duul ndax sa taat yi leer na ba léegi ndax delloo nañ ko kenn xamul lan la kenn xamul lan ñu nekk fa taat te yow ñoo ngi laaj taat yu la ba léegi dara leeru waa ñaari caga ñaari caga yu dajoo instant bi si line bi noonu lay demee ñaari caga yu suñu dajee si line bi ndax guddi gi neex na noonu lay demee waaw ñaata client ndax guddi gi neex na nu fa demee eh, waaw même waa naa puce waaw taa waa puce hein ay puce ki tik ay puce ki tik ki sensu laay gis ay insecte mbete mbete kafaar waaw mbete kafaar déggool ma de ba te comme ba teg kafaar boobu ba léegi ñong leen di wër pour door leen dal gaay yi nekk di exclusive aji aji saar yow leen togn ngay laqatu lu am lu graw lu graw man su nee naa su ma aji sar du waay yow may on génnal ba kenn laal la lay daw ya wax dëgg nan la ray nga dee si sa dëgg lolay wax bi ya wax dëgg na nga wala nango dee sa dëgg waaye yow boole nu togn la ba pare ngay laqatu ah what you eating bi boo booy lu ne nga sa gémmiñ bi booy sa gémmiñ bi eh? xoolal nel xaay nel xaay ah nen waxante dëgg nit koo xam ne ni ko du koo taat noonu nee na yow du laa taat nga porter plainte pour nu utal la justice ngay làqatu looy làqatu lu muy làqatu lan la yow da nga wala genn dox bonde waaw duñ ma sacc ñu sacc la ba pare nga dem porter plainte di laqatu non yow lañ sacc kay nga porter plainte da nga wala genn agresseur bi su fa nekké dina ñëwaat waaw su ñëwaaté nak bob leen nan nak la main dans le sac lool nan la main dans le sac ñu japp ko la main dans le sac ah amna lo xamné ne sénégalais ñoo wala jug xéxal ko sen bopp am lo xamné sénégalais ñoo wala wax ko sénégalais yi ñoo war taxaw imposer ko ba loolu mën a nekk parce que lu tax walatu noo nangu di toog di régler ay problème si ay falaa falaa ay waxu salaa salaa ay wax yoo xam ne ni que kenn xamul lan la kenn xamul lan la tey jii nii lu sénégalais ya wala ñoom seen groupement bi moom Adji Sarr rek gars yi xam nga fan laa leen yaakaaroon jamono jii nii fan laa yaakaaroon dégg leen waaw avocat wu Adji Sarr yaa ngi nii lii leen wax voilà dugg nañ génn nañ génne nañ preuve yi voilà su dul sax eh, vidéo photo wala preuve médicale tek ay affaire yu ñuy jàpp léegi du daa ne ok avocat Sonko yi tamit yegg si ne tey ça a été l'autre rendez-vous gisante nañ wax nañ ok nous savons que le cas là est en train d'être réglé c'est en train d'être suivi ya ngi comprendre mais sommes un propre cas nous sommes cas. ngi ko sur yow la cas bi bougé sax yow yaay y a rëy làmmiñ devait être sorti en ce moment fu nekk laa ne boo nan léegi sama cas bi porté plainte ma là, ni nañ ko juger nañ ko parce que demain, bu ndaw la demain, de a demain, dem samay mbokk nañ wax si wax mais non, non. Elle se plaît dans sa nouvelle vie, cette fille-là. xawma vie de Pacha leen ko defar wala vie de solité ne sait dans quel pays se trouve en ce moment ndax est ngi Sénégal ba tey wala fan sax kenn elle est là-bas elle est cachée et elle ne dirait rien Il y a rien maintenant pour pouvoir éclaircir les Sénégalais et les Sénégalais maintenant restent sur ce point et ils se battent dessus am ay nit ñoo ils sont là pour éclaircir parrainer nos dés, ñii parrainer nos def lii parrainer nos lii Et léegi comme ça en pesanteur wax gi en am pesanteur may wax nag ma gis nag doomaraamu Fra ma ma ma nee naa la abo boobu rek man laay bañ a gis sa idiste la sa sa sa mandil gaayit boobu doon nañ ko di ii xamul lan moom mooy raasu bëgg baay bi nag en costume yaa ngi comprendre eh waaw yaa yónnee leen sunu noon kii ay sénégalais yuy taxaw. di wax ay problème mu sénégalais di naan sunu noon yi noon ah yow nga dem bay ut ay noon si problème mu jàmbur si loo xam ne ni que yow se pas ton problème problème mu jàmbur nga dem toog ut say noon fu nga noonoo foo amee problème si politique mi dangaa am ay noon si politique mi kaay nga wër leen si politique bi kaay nga teg leen fekk leen si débat bi ñëwal nga fekk leen si terrain bi ñëwal nga fekk leen si politique bi nu ñuus la mais da am ay noon nga dem di leen woo si histoire taatu jàmbur ngay ñëw di ko wax si taatu jàmbur ñëw ba si problème bu taatu jàmbur bu desee leer laqatu fa naan waaw kay ay leen sama noon ban sens sénégalais lu tax mu paradoxal te con unbelievable lu tax nu paradoxal te con seulement pour le goût de vouloir dire quelque chose. Seulement pour le goût de vouloir dire quelque chose, sans savoir même de qu'est-ce qu'on est en train de raconter comme ça. ces imbéciles Si nous, commencé taxaw à ñoom si ça va continuer C'est moom que Françoise Hélène si boppam balaa may dee dooma xaraam boobu muy taxaw a prof de PS day duul Françoise Hélène balaa may de maa ngi gis sama benn sœur euh, waaw Fatoumata Danso moo ngi wax ba naan amaana sax xaw ma moom la xaw ma ka naan yaa ma ëppale ay diplôme wala kii détrompe-toi détrompez-vous ne laissez personne vous bluffer ne laissez person vous bluffer maa la ëppale François anay diplôme Il y diplôme mënul François yorul ñaar eh déggoo mu wax la que c'est ma plus ce qui français français yeeg gorgé yeeg yooyu noonu ko roule air yi day Sénégal ñun daa am lu ñu yàlla baaxoo gis nga ils ont tendance à bien parler français parce que l'autre c'est depuis l'enfance leurs parents les habituent à parler français dans ces foyers chrétiens là sauf fa ils ont souvent la tendance à communiquer en français ils ont toujours le verbe français ils ont le le verbe ils vont te tromper Mais wa Fatoumata may wax xaw la ah non mais Je ëpp diplôme ëpp le dara ëpp le tous ma rame. ban diplôme ok prof d'EPS EPS prof d'EPS e dans diplôme EPS dans diplôme prof d'EPS e exercice physique éducation physique éducation physique le diplôme pour nga prof lolu yenn say ay ancien sportif la ay nit ils respectent le sport bëgg neen am yaram bu le def concours concours prof EPS da am comme ni concours euh, police wala da am concours prof EPS so demee nu daw lolu de minute def lolu ay exercice laaj lolu ay yenn affaire yo xamné xol ndax am nga knowledge en gymnastique si knowledge tu peux commencer à être prof prof PS, si tu copie corrigez woo defoo dara yow looy ñëw def demi roulade courbé demi courbé roulade tourné courbé top, taxaw voilà gymnastique donc ça faut pas qu'il vienne là à emmerder les gens François il yori këyit na na wone diplôme yi su gënee diplôme yi ma génne samay diplôme François bi wóor na ma ni que biir na ma ni que suñu taalibe yooyu noo nekk Sénégal ñoo ko ëppi diplôme au moins am na taalibe am nañ diplôme wàccee kaamin yeah au moins am nañ diplôme wàccee kaamin François day duul dañuy waaxu jël bu njëkk lay def waaxu di ko gorge di kii di jaay kii di taxaw pour gëm amul diplôme moo ngi fi États-Unis waaye di nga yore diplôme ñoo nekk États-Unis chômeur unbelievable c'est faux doo yori diplôme ñëw ba fii États-Unis di fi nekk chômeur jamais yore diplôme yore diplôme ba pare yore diplôme ba pare ñëw fi États-Unis nekk fi chômeur quoi eh di am lu muy expliquer day duul de lu leer laa lay tegal day duul Françoise yorewul yorewul diplôme yorewul dara dara dara dara dara dara dara dara Baye Fall fii soo fi yoree yenn diplôme yi eh sooy liggéey sooy liggéey ak diplôme su la fayee rek nga kontaan waxatuma la ak sooy liggéey sans diplôme nga ñëw yore diplôme ñëw toog ñu yore la eh benn pangolin yore la yóbbu la ndey si àll bi dugal la si benn mbaar jàpp la fa di la ting suba ak guddi guddeeg bëccëg eh jàpp sa taat yi mel ni ndey terrain fu nekk muy kii eh

ay kii c'est sa parole contre la nôtre day duul di dajale day duul di dajale parce que waaye ah day duul di dajale Françoise Hélène mooy reenu bataar yi bataaru Sénégal yi seen ren seen yaay la reine mère de tous les bataars Sénégal mooy Françoise Hélène mooy renu tous les faux nu ko les faux classeurs xam nga nu may tuddee faux classeurs yi mooy gars yi nga xam ni que dañuy yeewu sol super sang sol chemise braille yore classeur sol ay sebago boole la ko nekk si ministère yi di taxawaalu fu nekk nu dugg génn soo leen xoolee nga tem nga foog ne sa ñoom ñooy ministre bi wala ñooy délégué bi wala ñooy fekk ko xolal waaw amee remi sa xamule leen yaa ngi comprendre si di rama xamul fu nu nga gis leen ñuy taxawaal ku jug nu ne la mën naa laa lijjantil lii mën naa laa demal fee xam naa diw diw sama gars les faux classeurs. so demain si consulat il fait clean so demain si ambassade il fait clean so demain si ministère il fait clean so demain si école il fait clean pour administration am so ñuy fait clean c'est eux qui traînent en bas pour à la fin bouffer des petits 5 000, des petits 000 et emmerder les gens là mooy seen ren mère seen yaay mooy Françoise camouflé du premier camouflé de la tête jusqu'en haut duul day ñëw làqatu fen tout le monde Françoise lu nekk si moom depuis le di ngeen fi ñëwaat di ngeen ma ko wax maa ngi leen koy wax tey lu nekk si moom depuis en haut ba ce cursus vital bu mu leen di gëmloo passe passe ma ki jaawul tout est faux Françoise elle est fausse lu leer laa leen di taxaw tout est faux ah Jangalena va fa fooy kii day prof EPS ay day duul diplôme déggoo lu ma la wax saa waay suy amee université eh, su amee kay terminal na sant su amé bac na sant François su amé bac na sant na na na génn ko génn na génn elle merde les gens elle parle trop day doul day doul François su gisee kaytu bac na sant day góoma de BFM sax la ñuy ay laame a kii a di kii nanga bi di duul eh, ban année la nek mom tay su nekkoon Vanvo tey jii nii suñuy morom la jangalon Vanvo su jàngale Won Vanvo nekkoon prof de PES c'est ma génération le don jangale PES te sama génération bob ñoy xorom dem ana amul élève am subir amul kenn ku ko si xàmmee amul kenn ku ko si gis nga eh voici ma eh madame day doul day doul ma len ko wax xaaleen ba mu dem ba mu tok ba mu ñew ba mu tok ba mu ñewat comme ko daa ngi il entrée de s'amuser fait ba mu tok ba mu pare ba mu ñew yaa ngi comprendre kon yoy non ay genre kuromati kuromaki la ñuy mëna nax yeey sen nopi xam nga genre euh, euh, nu nga ti euh, bëgg baay yooyu noonu mën nga leen genre Omar Ndiaye xam nga ay illettré leen ay mbaam leen laay mbay xam nga ay Didi Jéeme tous ces cancres la voilà yooyu noonu Françoise mën na leen yooyu parce que xam na fa la leen tane waa ma puce <laughs> te tam na abo yooyu noonu nag xam nga waxoon naa ko fi benn jour nga ni kii nee naa ne abo lu tax ñuy topp jigéen nga gisal lu nekk ay góoru mbootaay parce que ay ay pervers sexuel leen je vous l'ai dit vous allez voir jigéen ñi ni waxee waxu taat waxu ñapaxu waxu ak am data wax ay son yu sonn leen ay pervers sexuel di di pervers sexuel le laay euh, euh, ko sexuel vous mbay pervers sexuel xolé ñom ñep bajo data yalla rek ko ko xam ay pervers leen motax fu di la ñuy leen fa ki, parce que ay gars yu sonn leen danoo sonn ay pervers yu sonn xam nga la moo gën a bon nga nekk pervers nuy deetawaay nag nga nekk pervers bu xooñ looloo gën a bon pervers bu xooñ moytul ma pervers bu xooñ waay lay la mooy genre di di jéemé yee soo xoolee gi yaram bi yëpp nu mu mel noonu lu tax tey jii dama leen di wax rek benn exemple lu tax tey jii nii xaru tàpp wala nit bu nu tàpp di am yaram parce que sperme bi du génn lépp a ngi si biir ku xooñ du génn noonu la demee da am yarax am yaram di lexe ko mu yóon nu foo fekk ni non excès excès de ñoiti testostérone moo nekk sa yaram quoi mooy genre Didi Diop soo ko gisee bëggoon kenn xamul lan la ay keeki nangam sonn xooñ moo ko jàpp ba tax nu nekk ndey si ginnaaw jigéen ñi taatu jigéen ñi di wax rek ci ginnaaw taatu ji ay pervers sexuel ñooñu moom transhumance mën na leen yëy parce que baatu jigéen awra la xam nga baatu jigéen awra la loolu nag moo tax ñu naan jigéen walul di wax si kaw ak yi nangam te pervers nag moom su gisee pooj daanu su gisee cus daanu soo ko wanee poto corner ans mu daanu moom lu koy daanee si jigéen dafa yomb soko ko rombee sax xet bi romb ko soko ko la la wax mo ngi commencer yout affaire ba ngi tepp teppale ko di do non sonn jigéen la ni bañ gis léegi nak suñu amé nak ben yaay boy bu doomaraam bu tiaga imbécile bu kon bu xamul dara nek fa eh, mon frère yow Omar Ndiaye yow ay kii mel ni que elle est en train de te xam de te waaw sodomiser en dans même xam nga dans ton esprit quoi di dañuy wax waxu se ay kii les gars soo sont là-bas dañuy toog taf téléphone bi seen nopp di mballu dooma xaraamu imbécile yi ñu nekk fa waaw ah, moo frère kii nangam ñoom ñuy jàpp neex c'est la même chose ñoom ak gars yi di nekk si biir di tafu ñoo yem Omar Ndiaye di di jéeme ak Laay Mbay mu ñoom ma gars yi ngeen di ñuy jàpp si biir si kaar yi nii nga xam ni que ñoom la fekk yaay booy bi taxaw ñu jël seen joo bi taf ko si taatam bi ñoom c'est que c'est l'esprit qui est seen xel bi tuxul nañ ko ñoom ñoo ngi seen porno dugg nañ le motif billahi si bus bi taxaw tafu voilà bala 5 minutes nous daanu Omar Ndiaye ngoog malako wax c'est des vrais vrais vrais vrais vrais vrais vrais vrais vrais vrais con mais neen seetaan ne leen setan ak sen yaay Françoise ak sen tante Koura Macky seetaan leen foofu nee naa leen ñoom seen biir eh ay xaaj gu Koura ak yi ñaan say xaaj lesbienne là hein eh, les Françoise là les demi lesbiennes là hein eh, Françoise lesbienne là Françoise a des tendances waaw lesbienne voilà euh, c'est des bisexuels et ils sont dans les deux côtés soo leen xoolee mooy loolu ils sont dans les deux côtés nan mec, foofu seetaan la clatement yi claté nee le la moom mooy groupe ñàkk jom chaque année bi yëpp duñ koy claté mais jamais nous y est. année bi yëpp duñ koy claté chaque mois ak clatement chaque mois ak clatement parce que l'autre, c'est des lâches des hypocrites des imbéciles mais xoolal du nous mus a Nous du nous tunu musa yew say maram essay e nak ñongi senegal di fo ana ana ana ana ana ma mus mati trois pom mati trois pom dem nak neena len yed mati trois pom mo len gëna mo len gëna mus ak ndaway mati trois pom moy maram bi par excellence nak mom sa leer na may instant tamit mo ngi senegal ñom ñep dem len def les grandes vacances yaay dek dem len def gi seeni grandes vacances legi ñew nen tok di am lu ñu expliquer ku nekk ngi taxwa mati trois pom mom day laqatu day xaar ba affaire bi nee ñëw na non ya yo soup nee na danoo bloqué page day duul de day duul kenn bloqué wul ben page am voilà mo acc affaire yi c'est parce que mo ngi Sénégal dem togi Sénégal wala dem na benen deuk mo ngi commencé daw affaire bi ki su demee ba tok ba affaire bi calme mu délu ci waat ubbi page am dugg dal di ne voilà Facebook ma délo fekk ni yo demoon na taxawaale ñoom ñëpp ngi Sénégal fofu ils sont allés faire des choses mais mom du feeñ mom du feeñ da leen di use kooku nak mo leen xawa a ëpp moo leen ëpp xel. mati trois luka ya ko jox ci yaram yëpp walon ko jox ci tay walon ko ki daf ko ko jox ci xelu njombor xelu xelu xelu domaram xelu tek dil yaa ngi comprendre motax mu ñak yaram sohor am xelu tek dil du musa am yaram tank nak yena ngi ci lungan yeen de eh, lu ngeen walon ki yëpp sa waay dina ko si te du am yaram billahi mati mati trois pommes suñu demoon jël maire wow, yu gëna waw max ñu tegal ko ay mbanawu xéewal ñu toggal ko ko ba mu baax ñu ñëw jox ko mu wal koo lekk mati mati tubaabam su ko lekkee ba pare sax du tax mu am yaram mënul am yaram mënul am yaram parce que lu mu war am yaram lu mu war a kii yëpp si xel bi la dem xelu njuut njaaj teg dil dof dof noonu la fa tegee dil lekk quatorze millions wu jàmbur seey voilà lekk xaalisu jàmbur seey man mati tubaabam deux mois ba ma ko si déggee damaa yéem ma di toi man bu njëkk innocent laa ko doon jàppee surtout ma jamono yi muy nekk 2STV ma koy xool ak rasta yi kii di ma naan non kii de yaay booy innocent la kii xamul dara kii yekki nangam kii ah ok mais après ba ma demee bàyyi ah dégg ko affaire de quatorze millions hein vol de confiance ma daal ne ah quatorze ma tourné xool muy muy muy sunu ma ne sunu ndaama bi nekkate moom ah n'est pas si innocent que ça ndaama bi n'est pas si innocent que day day kii kii nii nii rek mais ndaama bi dëgër fit la def ndaama bi daa dëgër fit ba waay bul comprendre c'est dommage ça c'est dommage moo tax it comme nu may wax rek instant gi sama gaay wax gi wax gi mooy nañ ko leeral tous ces connards yu nekk si réseau sociaux bi di tëb di dal di am ay affaire yu ñuy expliquer wala di jéem a jaay imbécile la dañ ñëw wax lu ñuy wax nu comprendre leen xam lan ngeen di wax lan la Françoise Hélène moom wan na leen position woon wan na leen ni que day dàqe dépense te bañu si ñàkk jom te làqatuwul Françoise Hélène a ngi noonu sénégalais yaa ngi saaga ndeem nit ñee ngi wax di saaga ndeem mais moom gisoo nuy saaga ndeem daa mel ni moom loolu daf ko neex daf koy gën a doxal mom LM sa su démé ba gars yi aju saaga ndem mom si boppam mooy wëlbatiku saaga nit ñi pour nu dellu ci wa diko ko saaga Françoise M quand on ñuy saaga ndem diko ko teg si lay daxté dépenses mom si ñuy saaga ndem lolu mo koy dundal mom elle a fait son choix jël na choix wu ñak jom choix wu nu saaga ndem ba mu xey dé lolu jël na choix yeen ñak di and ak mom si boo tamit nag vous vous n'allez qu'à réfléchir et prendre votre choix loolu moo gën a moo gën a yomb si yéen parce que plus ngeen di xëcc plus muy metti si plus ngeen di xëcc plus muy metti si yéen donc faites votre choix faites votre choix Coura Macky kooku ab illettré la ab mbaam mbaam boo xam ne ni mooy loolu at jàll na lu immigré neexatul nee naa leen toute cette race de con là mais yoolu la de Françoise ak Coura Makeek ñoo si bokk yem yaa ngi comprendre nee naa leen Coura euh, Françoise bëgg naa tekki bëgg na am ay kër bëgg naa defaral dara Sénégal te wax dëgg fa yàlla du pas tubaabam bi moo koy tabaxal Sénégal pas tubaabam bii pareegul dem te di jëntil ko kenn Sénégal pas tubaabam bii ak won na leen fu mu nekk mooy loolu paa tubaabam bii mën na koo defaral moom di ko time su demee ba sonn muy am lu muy wax day génn su demee sa ba paa tubaab bi di sentir ni que daf ko bëgg use ba pare defaraale si njabootam mën na ko see bàyyi te su ko si bàyyiwee du am dara du am dara te moom kenn takku ko te kenn takku ko paa tubaab bi takku ko nekkaale la concubinage du leen won mukk ak certificat de mariage concubinage la ne américain mën na génn ak yow dix ans am ak yow ay doom yu punkal ba vingt ans Du a c'est pas une obligation ou une nécessité parce que une fois que vous vous mariez vous avez ce qu'on appelle bon euh, bien commun vous avez ce qu'on appelle bien commun te nag du ñëpp ko bëgg ma le et euh, euh, Françoise je nag lu ko metti un je Françoise fi kay États-Unis Coura moo jiitu yaay Françoise États-Unis Coura Macky lu koy matal lu koy dese mu mat 30 ans fii États-Unis bariwul su ko matulee ba pare Coura Macky taxawaalu na perte na jamono yu ngay ñëw États-Unis di lëtt muy neex du jamono ji jamono yu ngay ñëw États-Unis andi marchandise dugg si ruq yi jaay lal ñuy kii du jamono ji jamono ji ngay ñëw dawal kalandoo wala ay uuba du jamono ji jamono ji ñëppay uuba ñëppay dawal kalandoo bi ñëpp ligne dafa sature jamono jii nii ñëppay commerce sénégalais bu dem ñëw andi léegi sénégalais kese commerce suñu toutes les nationalités commerce nationalité yëpp dañuy def commerce américain ak yenn sax noo commencé ne noo investir si biir gars yi xam ne nu mu demee salon yi tamit wax yi noppi ñëpp a ngi létt latino yi ngi létt léegi africain yi ñoom waaye salon fu nekk américain yi noir seen ñoom sa commencé nañ tamit létt tout est saturé léegi nag amuñu dara réalisé wuñu tous dara topp leen lii nii seen dernier carte lañ sànni nii pour xool nan leen mënee am dara après lii nii nii nii kenn si ñoom du am quinze sur dix bay am njëgu tonu ciment kenn su ñom du am 15 sur 10 bay am xolal ndegu sima kura maki su du lon taxaw bi mu taxaw boobu wowe bopam Coura maki maki Sall du ko may xolal du ko may téré jas jam ñaajo bi foofu Coura maki may nañ ko fa téré té kan moo ko fa may téré nguur gi su ko lon nguur gi mo yëkati téré may ko fa foofu ba tay ba suba ba ginaaw suba Coura maki du am téré légui nak dess na tabax motax mu nekk ci wax gi ba légui instant eh, nii lu mu tabaxee tabaxelewu tonu ciment yeeg xam nga tonu fer yi déggal moo le karo kase yeeg karo karo yi moom lay lijjanti moo tax mu nekk fii un deux trois son excellence si yal na la yàlla jàppale musal la si lii ak si kii ak si bii ak man ak kii ki nangam njëgu ciment njëgu fer ah tam xam ne nu mu fa demee xam na nu mu fa demee xamna num fa démé té luma ci jaaxal ñom ñëpp ay vieil commerce lañ ay vieil commerce lañ vieil commerce man Coura Macky man luma gëna gën a metti si moom mooy wax dëgg fa yalla Coura wal nga uti jëkër té nga noppal waaw tata nga bëgg tànt rek dangaa rafle jarbaat maa tantin salte nga sa xeesal ken comprendre tanti illettré nga kon nga tata vulgaire nga tata tata da ngay wacc di lekkat tata day xulo tay suba mu genn si tata day wax waxet yaa ngi comprendre ba pare tata eh tata single quoi tata motax mu son tata so amone ku lay di la toppatoo di la ki au mas nga nek si yoon frustration xamna naa mais xam nga nous sommes à cet âge tu devais avoir ku lay denc quoi mais instant yi doo référence Macky soo yaakaaree mu takk lañ waxuma la ñaareel de mais nee naa la dix-septième femme sax doo ko gis doo ko gis parce que Marème Faye moo la long moo la large moo la mën da duma ba toog sa kaw da la dof la dof la wérul dof la wérul donc fu nga bëgg dem goro foofu wala dem foofu noonu dinañ la dóor ba tok sa kaw erreur bu déggul da jat la da lay dóor ba tok donc Coura util va te marier xam nga et que au moins tu aies un peu de bonheur et que tu nous laisses xam nga tu nous fous la paix so meree journée ji ba ngoon nga am ku le percé yow tamit comme ni ngeen di défendre les percés nga am ku le percé man c'est que ñu nous dul percé les mal perse la ñoom ñooy kaas xale bu ndaw bu nu percé bu mënul prouver percé na xale bi nag moom nee na duñ koo percé te mënu koo prouver mais léegi ay meeru kobe ay meeru buraaco ay meeru kobedaas leave him alone leave him alone ay meeru buraaco ay meeru kobedaas ñoom ñooy ñëw léegi ñoom ñoo ñëw kaas si wax googu ñoom ñooy ñëw kaas si percé ma ne leen yéen su ngeen amoon ku leen percé ngeen jël yéen yéen a wala dem uti ji ku leen percé yéen ba pare yow Françoise yow sa percé légalul waaw ah, yow sa percé moom wax naa la légalu yow nekkaale nga ba pare sa perse moom ñëpp gis nañ marteau piqueur bu lay perse moo tax keroog ah, ba ma leen woon ba ma leen mayee video mbaq pi pampan mu dagg ko dem dugal ko wëlbati ko fële daal di dem daal di ne kamara Moussa ah, kii la yor quoi bu sew nee na Moussa Camara te yow xaw ma lan bu sew la yor ma ne ko yow bu sew bi si ginnaaw mbaq pi pampan bi nga toog noonu nga koy détecté noonu nga def say affaire de kii ah comme yow boobu nga gis mais gisoo boobu noonu ñëpp gis boobu ñëpp gis boobu nangu koo gis ma ne ko boobu gis nañ ko ba léegi gars yi koy jeex mais biir kese lañ fa seen biir kese boobu moom lu nit ñi gis nii mais on se pose mais on n'arrive pas moo ngi fi ba tey nag ñoo ngi ko daas def ko daas fanaana ñoo ko daas def ko daas fanaana eh ñoo ko daas def ko daas fanaana mais wax savez, na ñom ñoom génn am quoi des vieilles garces comme ça eh, des femmes mal baisées comme ça là ay jigéen yo xamné ne ma ni que sen li la xamul ay mère yu français xéssal ba taxaw eh, ay sax quoi gëm ni que temps non vous en avez fini poser xef monte angle fi eh ki eh, xale yu xale yi ñoom ñoo lañ kay téré yeen yéen ñi miir yi ngeen nek ci quoi ñak fay ah tata tata kour comme que tata kour makki neena da bëgg jarbaat non da raflé jarbaat neena ko mangi ma maa bëri yaay ba mu neex bëri tante ki nijaay ba mu neex so ci bëggee bokk c'est une de plus allons-y ba mu neex ah, waaw mais man may jarbaat bo xamné damay wax rek waaw ah, je parle je parle tata xeeñ nga tata rew nga waaw ah, parce que tata salte nga lu tax nga salte da ngay wàccu di lekkaat waaw soo demee na ba nga bëgg a nekk tantewu manding ko móori ñun suñu diine dénonçant suñu diine suñu xeet gi ñun suñu xeet gi amul amul amul kii tuf lekkaat non ñun suñu xeet xeetu kii la waaw ñun bambara manding ko móori susu soose ñoolu léppay manding ko móori dégg nga loolay manding ko móori gis nga ñun ay lakkat lañ ñun xolol suñu jàppee jàpp nañ suñu baye baye nen suñu bëggee bëgg nen suñu méré mer nen xamuñu mat di euf di teufli di lekkaat ay ki lolo tax nit ñi doon wa dañoo radical kii parce que lan 1 point 1 plus 1, tégu non la ñuy doxé waye ku da day teuf di lek, di teuf di lek, so waxé mu bëgg gëna reuy nit ñi lamiñ nak waay waaw am wax melni kuy bëgg a di crise di bin bin rek bin bin bin bin mënoo yuuxu ba tëb nit ñi mënoo wax ba romb nit ñi Coura bin bin soo paree sa on va parler aussi mënoo wax ba toog si bopp nit ñi romb fii ba teere kenn wax oui non mbaam bu mel noonu quoi eh, nee naa la taay sama inspecteur bi sax moo ngi lay laajte keroog daf maa woo ne ma ndax lépp RAS ma ne ko nice mu ne ma wow yo that that girl how she doing ma ne ko ah, Mang kay deglu déglu boobu ba léegi de tay la ko nu ko ko sama garab bi nek si buntu geek sama xaj yeeg sama lepp tout maa ngi dégg gi sax suma fakas sama way bi dam jàpp leen ni ko moko dam sa saa ma doon wori ma ne ko man kay wori xam xamna fu ma boobu ba léegi maa ngi toog laaloo di dëkk neena la mbam mbame baaxul mbame baaxul nit da ngay yew mbame baaxul nek di xex xex la nekk di yuuxu xamoo lay yuuxu lan la topp ab regroupement rek bu dégg tëll rek topp groupe bi moo tax dina la dugal su musiba bu ne njëkk ñëw si dëkk bi taxul ngeen gën a xam kenn dëkk bi soo waxee maa la jiitu si dëkk bi ok yaa ma jiitu si dëkk bi loo am si dëkk bi loo xam si dëkk bi eh, eh, eh, eh c'est connard là bàyyi leen waaxu bi ñuy jéem a la ñun on est là on se connaît on est là on se connaît déggoo lu ma la wax yaa man na kii sa yaay maag kii on s'en fout de ça loolu mo nu ximmali moy tax yaa sama yaay ya mu ki ya fini lo réaliser lo def fo yob ñun tay seeni jarba degol mo len wax ñun ñoo ñew di lijeenti suñu bop di dem xol xam nga lu gën a dama len di jox ben exemple pour ngeen comprendre sénégalais lu tax mu kon ak mu soxor ak mu taw leen lu tax duñ dem gis nga sibir Afrique ya deux races deux yoo xam ne saa yu nu waaliyaanee wala fu nu génn duñ siy génn moo tax su ngeen gisee ils investissent beaucoup dans leur pays respectif wala dans dans l'où vient mooy lan bandiraabe lu nu munti wax ba wax ils sont solidaires soo la gisee si muy fulaani tukulóor yi seen biir ñaar muy awsa yi genre awsa yi ma mooy xam nga aw mooy raasu awsa yooyu noonu awsa yi euh, ñoom soo leen gisee tamit si biti yi soo so dineen dem di dineen mbooloo di dineen dajale un fonds dineen tabax immeuble boo xam ne que ñoom ñoo fay de képp kuy wàcc bees wala kiy nangam su ñëwee yow dineen la dalal ba nga mën a demal sa bopp su ñu amul dineen am que dina am nañ ay place ay locales am dans tous les pays na soo demee ils ont des petites communautés so ñewon waccu bes amo xamoo dekk bi sa di neen la accueillir jox la ruq nga am foy fanan ni nandal la wala dekk bi ba nga mëna a demal sa bop mais gis nga les autres races je ne te dis pas de communauté de nee la si ñooñu dinaa la say mbokk len wala say propre parents njëkk la genn dem yow yaay genn ñew fekk len fekk len si fogu met ñew fekk len si xoolal réaliser wu ñu tous nak ba paré nak yow mi ñew nu wala jappalé dem yow la ñuy bëgg tak takk De ans, de nga ans ki trente ans nga ñëw ba tey dañuy ans di loué imagine toi 20 ans di louer, xalaata luwaas bi jëndoon nañ kër xalaata nu jënd kër di loué du nu wajal seeni jarbal wala seeni i doom yow da ngay yexi rek nu bëgg la pour lan nga commencé di cotiser nous, si seeni du ñu ñëw wan la yow nooy def yow pour am say facture doxal sa bopp dem de mais da ngay ñëw nu wax kii pour teg la si terrain bi pour nga ngay commencé liggéey ñoo fay tamit xaafu facture yi ak ñoom. parce que lu tax ñoom ban fay nekk waajalu nu dara soo jegee nu ne xam naa dëkk bi maa lay xam dëkk ah ndax xamoo leen dara tous dara connaissez rien rien du tout. handicapé nit ñi nekk taxawaalu fly dem fly ñëw fly dem fly ñëw jaabante wone wàcc Sénégal yàqamtiw na lu dul wàcc Sénégal pour nu wooyee leen ay diw Atlanta diw Chicago waa ñëwati nga jaay ñi ni loolu looloy seen plaisir le plaisir de revenir moo tax ma naa leen ñooy njaay toog fi yàpp di wax fii bu fi kenn bluffé kenn jarul di bluffé wu xam-xam du si ay at xam-xam du si jiitu ah maladie tout ce qui est de la c'est bien pour toi mais cela ne prouve rien cela ne veut rien dire aussi y ma qui, il y a qui, bon ok et alors la vie continue donc à un moment on doit se réveiller quoi à un moment on doit se réveiller et se dire les vérités. On doit se dire des vérités telles qu'elles sont. Nena, naa femme non Françoise Hélène ay Coura toutes ki toute leur bande là c'est des personnes yu ngeen xam que ont tek yep, tek wax yi lu ont wax lu metti ba yéen ñi top and ak ñom ni di leen déglu ñuy wax di tepp di dal di yuux yeen ba tay ma ngi leen di poser la question est-ce que xam ngeen lu metti ñooñu xamoo leen mëno leen ma wax tay jii ni lu metti tout ça parce que lu à un moment lu leen metti moy nar a so leen topé ñom si lu leen metti seen bëgg-bëgg di ngeen mere tout le monde parce que lu leen metti mo bëri sa nañ ñëpp man je me pose une question kan mo nek ci réseaux sociaux yi kan mo fi musa ne te yaa yu jamais affaire ak ñom je me demande kan moo fi nekk boobu ba léegi am fi temps bi te yow waa groupe kuro ñëwaatuma kuro Macky ku wàcc bees kuro Macky kuro bu bees bokk si woon. groupe Françoise Hélène Gueye bi la Françoise Hélène Gueye kuro Macky démb la relier moom ak euh, Mathieu Trois ñoom ay nouveau élément leen. mais damay laajte ku nekk si réseau sociaux yi ba tey ba doxal te nee naa leen groupe Françoise Hélène beeg ay Omar Ndiaye Diri Guémé Laye Mbaye ces putes masculins attaqué ou nous amul ils ont attaqué tout le monde sur des raisons yo comme c'est leur propre raison personnelle Diou day live di wax dama attaqué Diou lu mi wax si dama attaqué Diou ki ki nangam ñom si loolu la attaqué mais pas si xam-xam non non homme en tant que que combat bi un combat bail. seen baay moo moom combat bi dëkk bi seen baay ko moom affaire yëpp seen baay ko moom que léegi ñoom ñooy dogal ñoom nu ko bëggee noonu la nit ñi wal koo doxee. ñoom nu ko bëggee noonu la ko nit ñi war a doxee ku d'accordul ak ñoom nu saaga la da ngay d'accord ak ñoom par force ñëw teg nag léegi affaire bi nag. nanu waxante dëgg nanu waxante dëgg moo tax ma naa leen ñooñu man je encore Nan ko Françoise Hélène ah man dama kii ki diplôme ana diplôme yi Ah, ay eh, eh, prof EPS la prof exercice physique ma ne ko nuru woo ko ngi ni pangolin voilà prof EPS c'est tu mens tu mens Françoise de fen de duul Françoise benn EPS la xam mooy lal ga aj tànk ya juutu wangeetu ak beneen EPS bi mooy lan dóor teg dil EPS teg dil EPS su jaabante Sénégal fen nit ñi loolu la Françoise mën voilà EPS su leggam yooyu noonu ñaari xam nga ñaari tànk ginaaram yooyu c'est patte de poule la pied gauche yooyu am moom ñaari gauche la yor ŋàppi ko waaw yooyu noonu daal la mën voilà Wow, sport au lit soo waxee mu soalnya Prof EPS kii soo xoolee Françoise Hélène est-ce Newton ndawam sax mooy loolu non bàyyi ñu def sport ñoo xamee que prof sport leen woon màggee si sport nee naa la suñu àggoon sa cinquante soixante ans soo leen xoolee da ngay xam que yaram bi sport lu ñuy sa sax dañuy nuru ay màggat yu sport yaa ngi comprendre mais du ñu màggat ñëw ay doomu limon fii ans yu ras Eh, ñaari pied gauche Eh. ba pare nekk fi mon frère mi mon frère ma ko yow da melni yow diplôme doxalo wala xam nga cuq góor elle sait comment charmer les hommes mom tiagal di kow cagala diplôme bob voilà parce que nu muy def ba per euh, nu ces pervers sexuels là di di wax gi nee la si la len di japp di len laal rek Françoise Hélène day laal di jéeme lay mbay Omar Ndiaye lepp si wax gaay di daanu parce que awra la ba yow Omar Ndiaye saa way ay pervers sexuel moo tax ñuy wër fu jigéen ñi nekk foofu la ñuy nekk ñoom jigéen moo leen di dundal nee naa la am na si ñoo ku nekk ak lu lay daaneel si jigéen am na si ñoo xam ne suñu gisee weenu jigéen kontaan am na si ñoo xam ne taat moo leen di daaneel taat am na si ñoo xam ne balaa ñoo daanu nu gis kër gi la maison soo ko si kii am na si ñoo xam ne waxumala kër gi la maison mais xet bi balaa noo barkeelu wala naa foog ñu taf bakken xenj kontaan bég yaa ngi ku nekk ak lu lay daaneel mais gis nga band yooyu noonu fekk ñoom nag ils ont pas ñoom ñooy no choice waa bandu no choice laay mbay Didi Jéeme Omar Ndiaye no choice ñoom nee naa la jigéen soo ko buddi woon ne leen bii bu jigéen la nu daanu waaw jox leen Kleenex nu fomp daanu nen ñoom jigéen na leen di daan Didi Jéeme toog na moom il a il a avoué moom toog na nee na carrément dafa bëgg jigéen moom moom jigéen mooy loolu ba muy kii di kas live bu mu fi defaloon Ousmane Sonko di ko wax ba mu naan kii ba mu ne moom dafa toog avoué ne moom dafa bëgg jigéen kii ak kii nangam kii moom wax na quoi mooy loolu foofu nag la ñuy toog chaque guddi nu dugg seen kii seen trisexuel laa koy woowee trisom ah trisom la ñuy def wala foursome xaw ma lan def seen appel toog ñetti yore seen saabu teg seen i clinique si doy François leen laal si téléphone eh, yow. yow Omar Ndiaye yow eh Omar Ndiaye di kontaan wax na sama tur wax na sama tur wax na sama tur wax na sama tur mu tëgg si biir jigéen ne waaye yow di di yow di di ne ko ah. noonu lañ koy communication bi yëpp suñuy pare suñuy rak waaye ni def nañ ba suba gars yi daanu neen deux fois gars daanu neen deux fois laa lay tegal ay pervers sexuel ñoom suñu nekkoon fii États-Unis def neen xolal numéro seen doq yi koñ bu ñu dëkk duñ koy cible yéen du leen di suivre à la loupe yéen bàyyi sax ay ay xalé sax yu jigen wala ay ki ala antum seen wet wóorul wóorul moo tax soo xoolee doof yooyu noonu suñu duggee salaamaaleykum salaam seen faux profil tëb lu ñu ñëk wax ma lan taat waxu taat bajo bun ki sa layu ce qui un des pervers sexuel Françoise lool la xam nak chaque guddi nak mu defal len xawaare trisom ñew laal la ñom ñëpp doxantu sak guddi mu jox len gaay yi mënu ñu ko baye suñu démé wéet mom moy kenn ku len ko nangul fu ñu dem tante yépp doxul Yeneng gaay yeneng jigeen jigéen ñi dañoo jeuker jëkkër du ñuy dem dañoo am lu nane droit de réserve amna heure yo xamne so len fa wooy bëgg leen mënul ne du dem bëggal seen jeuker yu len momal seen bop lolu nak frustré gaay day frustré doomaraam yi François rek moy libre caga doom doomaraam la n'importe quelle heure elle est là elle est prêt à baiser les gars au téléphone voilà su ko defé mu jël leen diw la ñom ñep dem tëddi elle peut satisfaire tout le monde François dégg ma di jàmb laal sax mën na len satisfaire François peut satisfaire tout le monde Mon amul si problème bon. amul problème bon. Mon problème bi mooy na lekk rek moom nañ ko cër moom na dàq dépense am na lekk rek voilà ca mooy caga yooyu noonu nga xam ni que taabooy soo leen bëggoon laal soo leen di iri sa gars yi da sandwich ak boisson so ñëwee suñu gisee sandwich bi tegu si table bi nekk boisson bii nii nga gisee nu simi daal yi daal di Il ba naaj tëdd si lal bi jàpp njaa xëcc télécommande bi yow xam nga ni que kii day fanaan Il ngi comprendre automatiquement xam nga day fanaan nga commencé xam nga dugg si toilette bee génn keeg xam nga crochet ki ubbi waaye soo ñëwee dugg xool table bi xam nga fekk fa sandwich gisu fa boisson si chaise bi lay toog du toog si lal bi commencé manipule téléphone ki wooy koy copine jëkki-jëkki daal ne na mais mais maa ngi kii dem gi fekk ni yoo oh. ba muy message ki di wax di copine beneen far gi la yónnee na ko beneen far gu am sandwich ak kii ne la maa ngi dem seeti diw non dem na sa copine nga wala dem na sa beneen far yow ñàkk nga yow doo fanaanal François a ngi noonu moom ak tiimam bi laay mbay a ngi noonu laay mbay fii la taxaw lu mu waxul François amul tourné François katt naa la def naa la nii kii dugg naa la fii lamb naa la nii dugg naa nii sa taat bi nii sa bajo bi nii dugg na fii génn na fii ba mu sonnee mu tourné mu dem ah dugal na ko fépp après wëlbatikuwaat na ñëw na parce que foofu rek lañ ko ko nangulee yeneen yu mu essayé yëpp doxul yaa ngi léegi nag mu daal di dem encore Omar même chose เดมเนนฟาตุมาตาดาสโคยาเคนังกัมดูกุนเอฟุนัอดโดุตยิลิอาเคฟรานซัวสโอฟเลดโอเนลูวัดเนนวีริวีริจารินดาร์ชงกับบุเลเลบอลดูเนียเข้าไปยังไคอมพลันเชงกับบอลคอมเมนิกซายอนเนนเคเลบอลบุสมุเลดูเลดูเนียเข้าไปดูเนียเข้าไปโลลนักโมดัลไกโลโลดัลไกไอชงกับยูเนียคเนียขัลเลยังไมคอมพลันโน่ Dagan po ba karbayo? Dara mo boy po iya kung may nyukit laon nak. Asi ay nyukit pang mo yara ikle. Ngay pang hawa waga mo. Wala, asi ay nyukit day waga mo nak. waga mo tuti kwa. Nola deme. May waki dal mo moy. Eh, tayo sa magara bu Françoise. Françoise Ellen. Tayo yow lay jappale yi la Françoise yeah. prof EPS bi la yor si R si balcon bi R plus 1 yii ñoo si nekk man de ñee naa la pervers sexuel yi nag sa pervers sexuel yi du nu de sa pervers sexuel yi de moom du li du yi nga xam ni ko comme comme ak tuñu du de <laughs> du du non c'est pas sûr C'est pas sûr. Là, là, là, là. D'un sa pervers sexuel il kay a un leneen Lenen kay mais nàmp ay quatre 4 il di xam nga thérapie wala ma thérapie 4 quatre parce que yax yi faites attention aux aux noces les noces Billahi walai, nuler lalai di tegal. Nah, apa yang kau fi tol? Saya seetaan rek dengan senyawa, dengan mana di ngeen mane booy Dapat funny, saya kau semua di wax souvent eh, dapat mel eh, apa yang rigolo dafay reetaanlu da lu. Dengan nano, booy bini kini anggap, nangam mais comme kau ma ko waxee rek eh. gis ngeen suñu toogee tuuti lépp dina leer da ngeen di ñëwaat fekk parce bi mau mau demen nono. dëgg bi moo demee noonu nee naa leen lii di yéen booy soo leen lekkulee seen lii picc yi dañ fiy ñëw fees dell lii moo tax bëgguma leen woon defal the te kii su ma ko génnee day lekk lool du lekk lii you don't eat your food when you gonna go out you gonna go eat people's food that's why I don't want to let you out doo génn sama gaay lu leer laa leen di tegal eh eh eh, eh where you going where inside lu leer laa leen di tegal nee naa leen continuer leen vous allez voir que ces gars c'est des pervers sexuels Didi Djemé Laye Mbaye Omar Ndiaye c'est des pervers sexuels nee naa leen lu nuy wër si réseaux sociaux bi combat dara ay jigéen la ñuy wër yu ñuy longonte téléphone chaque guddi wala chaque instant jigéen ñi di wax ñuy daanu ñuy mballu ñoom looloo leen neex ku si nekk ak lu koy daaneel ñii dañuy tafu ñii dañuy xool daanu ñii xet da leen di romb nu daanu ñii jigéen day wax sa nu jàpp neex am na si nag ñoo xam ne ñoom compagnie wu jigéen moo leen di neex ay coggu leen du ñuy nekk si biir jigéen ñi di xencu ki di wax di daanu di jàpp neex ñoom loolooy seen plaisir mooy raasu Laye mbay bi raasu Omar Ndiaye ak raasu nu nga di Didi Diémé ces trois c'est des trois mousquetaires qui marchent ensemble ñetti doomu xaraam yi soo leen bàyyee si kër nu taal kër gi xale yu fa nekk yëpp dina leen laal violent day xale pédophile déggoolu ma la sa des imbéciles moo tax foo comment vous allez voir cette chose seetlu leen seen moroomu góor ñi du ñu bëgg def ak ñoom lu yàgg du ñu sore ak ñoom toujours ñoo ngi si pegg jigéen ñi dem toog fa di raconter nekk ay racontard ay jottalikat ay nettalikat di wër di kii parce que toujours bëgg na suñu nettalee lenn jigéen ñi lu leen neex ku jigéen ki mën leen a wax ñoom tamit lu leen neex nu mën a daanu donc si loolu la ñuy dox ok sama sista sama sista kaay ma wax la lu la neex kaay ma expliquer lu la neex comme ça ñoom tamit ñu nekk fa yooyu noonu nee naa leen awra la am na si ñoom duñ si jàpp neex seen reetaan yi moo tax nee naa leen cette garce de su ngeen déggee nous muy waxee c'est ce qu'elle a compris elle elle baise les gars dans ces dans dans ces choses De leen quatre si wax nu def di wax da parce que n'est que bat aura la nekk fa elle a changé toute sa façon de parler ñun ñu ko doon seetaan bu njëkk ba ak léegi on sent que ces deux personnes on dit que c'est métamorphosé avant elle articulait bien elle était un peu correcte mais maintenant c'est une histoire de eh mon frère di rouler ay air xam nga mel ni ku lay kuy raay sa nopp quoi mel ne ku nekk sa nopp di ko raay xam nga eh mon frère waa yow kii ah, waa kii nangam moo tax ma naan leen ñooñu di leen sonn di leen sonn baax na gars yi di leen sonn de seetaan leen rek nag nen doxal ci doxal fi leen nekk soo leen déggee ah waaw kii nangam waaw yow moom duñ la a tegal duñ la muus tegal ñom ñu lay naqare wala ñuy xex non non non non ñoom daal dañoo am seen caga ambulant seen caga ambulant bi Françoise la tudd mais dundal njabot ñëpp xej nañ ci voilà Françoise mën nga ko katt cent ans bañ ko fay ciolul mom mën na ak ñëpp ciolul mom daal lañ ko langal tek ko mu jël len dajale len comme ni ko di ubbi ay panel di ubbi ay page comme ko Facebook moom ba mu ko defee gratuite ba léegi gars yi danoo yé danoo danoo rep danoo rakkaaju acca xeetu panel bu nekk mu ubbi leen ko nu fay dajale gars yooyu noonu nag ñoom panel yeeg wax gi amalu leen solo ñoom réunion leen yàqamti seen téléphone sooy woote réunion benn yoon lay sone du sone ñaari yoon yooyu mooy seen faj foofu la ñuy jële ils prennent le pied ñu ñëw toog xool ay jigéen ñu ñuy jéem a ñëw xool ñu naa leen mon frère ñu nekk fa di jéem a charmer voilà di xool nag après ku nu naan dama laa nopp wala yónnee ma lii su ngeen seetloo y a des femmes qui ont commencé à keroog am na suñu benn sister sunu benn sister bu génn def benn live doon saaga ba naan man nekkuma si réseau sociaux yi ñëw di nobante du ma wax turam dama koy leb mais keroog def na fi live bu tàng bàyyi leen man ndeyam ngeen di dugg si réseau sociaux bi di ñëw di kii nobantewu ma ay affaire de kii ki nang loolu leen fi nekkee suñu yàggee nii ba nga may leen kanam nu xaw laa ñeme léegi nag nu commencé di xool nu lay doxaanee di jéem a xool nu ñuy dugg ak yow pour dugg sa caaya pour miin la yaa ngi comprendre doomadaam yooyu loolu la ñuy dox man nag wax naa leen ko dès le départ nee naa leen seen affaire de imbécile yooyu noonu ñoom suñ koy def la ñuy def seen affaire nañ ko yemale si ñoom man je ne suis pas dans même catégorie ko ñoom doxuma si seen affaire yooyu bokkuma ak ñoom nan ma génnee seen affaire de imbécile yooyu ku ma si boole ku ma si romb man dinaa romb naa waaw boros seen ndey ba mu saf-saf amul sax ma dem te ñëw amul sax ma dem te ñëw Françoise Hélène nag ak Koura Macky ñoom ñaar c'est deux choses yu différentes Koura Macky ab maire bu xubidaas bu kattandeem bu rate laay fam buy dàqe dépense Françoise moom tamit waxi noppi ñoom ñaar ñëpp mais léegi la problème mooy nu ngi koy dàqe jee c'est de là où ça différence moom ab illettré bu kon la bu yëgul kaay ma bu nu boojeeg bu nu saaf mooy genre nga xam que du leen jëlee koñ ba aéroport andi leen États-Unis yaa ngi comprendre ils ont pas compris beaucoup léegi nag léegi moom si tëll ma rajax si tëll ma rajax la bëgg a lijjantee boppam mais c'est le posé nag de Françoise Françoise ay diplôme yu diplôme duul la diplôme yi yëpp moom léppam si lii la yem yàlla may na ko manipulation Elle a le droit de manipuler. Elle connaît des petits trucs. Voilà, États-Unis. Elle a vu d'autres pays. Elle comprend un peu. Donc, c'est deux cas de mesure. Entre Françoise Hélène et Kouromaki. C'est deux fois deux mesures. Kouramaki, la mine de ba Kuromaki muy tool ñun may tout. lu wax lu mu réseaux sociaux yi ñun ñoo may tur kuro la Macky du la defal live bu romb 1000 personnes même su nekké YouTube kuro la Macky du def live live bu romb 1000 personnes ba 2000 personnes ñu koy suivre wu kenn xamuko gaay gars yi ñun ñooy wax ci mom motax nit ñi diko geustu diko jema comprendre loolu nak mo leen metti nee leen man su nekké man ma leen nakari wala ma leen metti da ngeen di ut ndox bu bëri ngeen def ci glace ngeen di naan parce que du man yàlla la yàlla mooy jaay boppam yàlla mooy yónni mission bi yàlla mooy jël affaire am man waxuma waxu yàlla laa leen di wax te su neexee nit ñi du ñuy wuy man su ma laajee su samay vidéo yu bëri du man maa koy def YouTube man ba ma commencé def YouTube yàggul noonu te taay arrêté woon na samay vidéo yu bëri nit ñi ngay dagg jël jël yóbbu nit ñi ngay tegaat dugal dama nga woon parce que contenu bi la lu ñu fay fekk la. loolu nag moo metti yenn nit ñi ba tey jii nii ils vont venir m'attaquer ñëw wax ñëw song ma mais sans andi lenn loo xam ne mën nañ koo jël teg ko ci table bi walla leeral ko parce que lu tax amuñu tontu mais le problème mooy ni ko booy bii nii lii muy wax lu tax muy àgg fii lu tax nit ñi di ko déglu bopp ba léegi parce que waxu yàlla la parce que waxu yàlla la du romb nopp donc Coura euh, euh, Tata Coura voilà Tata laa lay woowee bis ni tey yaa bëgg a yaa bëgg jarbaat yow di génnaat encore live daa di ne Moussa bul ma woowati Tata yow yaay kuy live ati daa di ne moo Tata bi de yow di ma yow da ngaa rafle jarbaat rek da ngaa jarbaat man nee naa leen ñun rawuñu lool dawuñu lool exposé wu taxaw ñun ñoo exposé wu combat bii nii kuy làqatu doo ko xeex. combat bi ni nu ne kuy làqatu doo ko xeex te doo si sori combat bi du combat kuy làqatu combat bi c'est un combat de tout le monde dehors génn ku si nekk jàpp si lu mu war a jàpp ñun nag ba ñuy dévoilé wu du tey nit kuy toog di la won kanamam chaque jour di live nga koy dégg si turam ak santam turam bu ñu koy nu ko yàlla tuddee nu ko yàlla waaw yónnee nu tuddee ko ay waajuram tuddee ko donc du nit tey jii nii la ñuy làqatu combat bii ni nu nekk dëgg soo koy xeex doo làqatu dëgg soo ko yoree doo làqatu mënoo am dëgg di làqatu amul sens yanul maanaa ku yor dëgg da koy andi teg ko ku nekk mën see xam nga jëriñoo mais yor dëgg ba pare di làqatu am dëgg di daw foo ko gis donc ñun tay jii nii combat bi ñuy def làqatuunu si duñ see feeñ ba mu neex duñ see ñëw taxaw mu leer duñ see ñëw jaakaarloog ñun si wala jaakaar lool te nag duñ si wax luñ wala wax mënoo ne dangaa ñëw xeexal sa askan dangaa ñëw xeexal sa futur ba di làqatu lay làqatu xanaa lu ngay làqatu du jam comme yow lu nga nekk comme du dëgg du yoon ku du yoon soo jàppee ni que yow waloo xeexal sa bopp loolu mën ngaa làqatu mais soo jàppee ni que am nga droit xeexal sa mu nekk dëgg si yow da walla mën a génn nga xeex. nee na ko euh, Koura Macky elle a senti Françoise veut sa place à APR motax muy ki na la wax euh, Fantali xam nga jamono ji ni si ñom ñep kuy xëccio place ak kuy wax ça montre encore sen illettré ak sen incompétence ak sen bâtardise parce que nguur go xamné ñong koy pousse mu genn nguur guy genn nguur go xamné ni ka instant gi ni jéxal na so démé di fa place da nga yegut da nga yegut su coow li nang ko ñeme lu mo wax de nguur go xamne ni que pare na ba paré wala dem nga dem dugg fa ñëw tok ne da ngay xëccio place comme nak bok moy yobe, moy lool dof rek mo lay yobé si dem xëccio place ngurgo nguur go xamne est sur la porte si buntu gi ñoo ngi si buntu gi di dem léegi nag comme nu ma koy waxee rek eh eh eh eh eh waa yooyu gars yi ñëwati den gën a tiddat seen faux profil ñëw nañ ay moor jeng-jeng ay keeki ndàngam nee naa leen ay ay ay pute yu mel nii yéen man vun man du ngeen samay royukaay vous ne me faites pas chanter du ngeen ay nit yoo xam ne chaque jour laay jël sama temps bi di leen ko jox vous ne valez pas ce truc là nag ay nit yoo xam ne ay ay ay ay ay nu laa ko mën waxee vous êtes ay làqatukat yéen nu ngeen di xeex da ngeen koy xeex si ginnaaw ay nodd toog di kii taxul may wax te taay tamit nag am na message moo bëgg a jàll yow maman Aïcha Diallo maman Aïcha Diallo su nekkee yaa ngi fekk sa faux profil bi di déglu damaa bëgg nga déglu ma bu baax dinaa la ko xam nga taay nii jël nga di dugg sama sama live di ma saaga di làqatu di ay kii xamante nañ yow yaa ngi comprendre boobu ba léegi nag maa ngi doon def samay enquête ki di jéem a lijjanti di xool di ngun nguni di xool di xool nee naa la suma la si nee critique man làqatuuma de sa ndey dinaa xorom sa cottu ndey yow ak sa doom boobu noonu démb nu doon denc ak sa lëfal ndeyu ñooñu nga àndal ñëpp kat seen tuunu ndey sant yéen Aïcha Diallo tu veux jouer non du nee nga ni ko daal caa caa le plaisir tu aimes te cacher derrière des petits cons jël leen avancé leen di teg ba ngay dugg si fii di ñëw di am looy kaas di andi say affaire bi

ba ngay dugg sama live naan da ngay camoufler ko di xool koy saaga man nee naa leen man làqatuuma saala yaa ndeer samay saaga seen ndey dama leen di saaga devant nii ngeen may dëgg làqatuuma damay live ngeen may xool ma toj seen cottu ndey yéen a ngi su ma nammee combattre wax naa leen ko dara làqatu wala jaare ko si leneen na ma yàlla faat na ma yàlla faat comme nag yow Aïcha Diallo Je une dernière fois quoi man voilà les femmes j'ai un minimum de respect avec eux Cookie comment Cookie les femmes au moins j'ai un minimum de respect avec mais quand tu arrêtes de te prendre pour une femme respectueuse ou bien respectable là je te mets je te mets sur la lignée wala je te mets dans la même place que les hommes damay xorom sa ndey jigéen bu joxul boppam valeur jigéen respecté boppam en tant que une femme respectable man du ma la respecté damay xorom sa cottu ndey santaak boobaa nag ngay comprendre donc nag yow Aïcha Diallo encore samay wax ak ay Françoise Hélène ak ay Koura maki ak lu may lijjanteeg samay waxu kilifa diineeg su nekkee nee nga léegi loolu moom mooy léegi combat bu la andi woon si réseaux sociaux bi donc fàtte nga fi sa taatu doom bu jigéen bi sa taatu ndey doom bu jigéen bu nu jëloon di ko passate donc changé nga combat dugg nga si beneen gaam donc na dugg si nga si loo xam ne mëne naa fa yaa ngi comprendre dugg nga si coow loo xam ne mëne naa fa su nekkee taatu kilifa diine yu may lijjanti mooy taatu sa doom wala su nekkee ni que léegi ñii doomu xaraam yi may waxal mooy taatu sa doom bu la andiwoo si réseaux sociaux yi ba fu nekk nga daw waay kaay leen montal nañ sama doom bi def nañ ko noo dugal nañ ko fii ay kii nangam di wut wàllu léegi nag dugg nga foo xam ne mooy loolu comme ni nga ko waxee fii mooy loolu de kat seen ndey ba ngeen di patin léegi du dëgg seen ndey ba ngeen di patin donc nag tu n'as qu'à te respecter ay Aïcha Diallo Tu me comprends, non Toi, avec tes petits minables là, votre chose que vous faites là, votre histoire que vous êtes là, allez-y, vous irez là-bas. fii fi diggoon Californie comme 1000 mille dollars et quel, xaw ma ndax jot na si dollars yi ko fi diggoon ngir rek bëggoon ut ku lay Yep, ma maa ngi di parce que bob amoon nga prod nak, nag ya, yaa wëlbatiku léegi ya dem làqatu si ay ginnaaw faux profil di dugg si page nit ak sa domaram, yooyu nga gis nak léegi hein di saaga nit ñi non man du ma laaxatu su may saaga sa ndey photo yu taxoon ngay jooy ba nga dugg si lu taxoon ngay jooy ba nga dugg si réseaux sociaux yi moom laa lay génne laat partagé waat ko comme boobaa nag nga am looy xeex ñaa ngi comprendre tu veux t'amuser il faut bien t'amuser tu veux faire la conne il faut savoir avec qui tu fais la conne man samay périmètre soo fa duggee billaahi wallaahi wal kitaabi samay périmètre soo fa duggee di nga gis lu la wexaat nee naa leen seen jàmm si man bay la ma ma lijjën sama kilifa diine yi ngeen ne woo oh, du ngeen ma fa bay nee len lol fofay foo parce que ma fa nek emmerdé ma kenn je ne suis pas je suis là-bas je me cherche je demande mes questions de lijjanti nit ñi nekk fa di sa léegi nag yéen yéen vous voulez me ramener dans ces choses nee naa di ngeen ma wàccee gal parce que man nekk laqatuuma négocié wu ma nekkuma seen affaire je ne fais pas semblant jegewu ma ko te aw ma temps bi. damay jàkkaarloog yéen xorom seen lëfal ndey ba pare dem nekk si leneen di ko def saisonnière nag saisonnière saisonnière génn kat seen ndey ku si nekk lu muy xam naa nu ngeen fii ngeen nu fekk seen tëb bi dal yéen ñëpp fii ngeen nu fekk ba nga seen la tous on est là fi commencé yàgg ñun ngeen di wooye booy booy ñoo ubbi réseaux sociaux yi ngeen nu fekk boobu ba léegi on nee naa leen ñun ñenn ñii di live sax tey dinaa ñoo leen fital Assane Diouf tey jii ni su demee bay toog Jules François su suñu demee bay taxaw di wax ñoo leen fital su duloon ñun tey duñu àgg fu nu àgg Jules Souleymane ba muy génn foofu leen commencé xam luy live ñun di topp live commencé nag xoolal bàyyee suñu xel daan ne ah comme am na affaire boo xam ne mën na changé ah. comme que dëkk bi mënoo wax la woon nu tëj la fii nii am na kuy toll fële di wax te gaa yi ngi koy dégg ah. jërëjëf jërëjëf temps yooyu noonu sax YouTube amaguloon après la yenn yi commencé di gën di YouTube temps yooyu noonu kii la woon Skype Skype mais ah am na luy commencé xew ñu doxal Assane Diouf ñëw ñu xoolal ñu pousse parce que temps yooyu noonu Jules Souleymane transhumé na Assane Diouf lu ko may doole transhumance Jules Souleymane toile bi wéet Jules Souleymane ñëw transhumé ñu may ko kër fal ko ministre jox ko xaalis mu dem supprimer vidéo yeeg affaire yëpp amatul benn traçabilité sunu genre bi mer parce que xam nañ ni ko ñun looloon doon dundal si loolu la ñuy dox rek Assane Diouf ñëw ak xorom si Assane Diouf ñëw ak xorom si rek ñu teg ligue ñu teg ligue nag gis nga ñii nekk suuf di saaga di kookoolat ban koy def ñun boobu laay boobu nag lañ commencé rek ñun créer ligue protecteur nekk si suuf ku dugg si live di saaga wala wax leneen nu kat sa ndey ñoo doon réguler ñoo doon réguler live bi moo tax Assane Diouf su doon dugg ah da doon dem ñun ñoo doon foyal du xam day dugg tak ñu dugg live tak ñu dugg ñoo tok commencé sillonné ku fa dugg wax fa lo walu ta wax nu kat sa nday nga gën dem ba un moment nak ñu taxaw daal né non sa way lu muy def nu ñep parce que su demone ba ñu japp ko c'est parce que nguru Sénégal dafa jàppoon ko mom kese la suñ ko jappé mu jeex moo tax ne du daal ne non suñu amone yu bëri yu mel ni moom ñii dinañ noppale ko moo tax Assane Diouf instant bu muy wàcc ñun ñu jug Françoise Hélène ñoo ko jàppale ngir jëmm Assane ngir jëmm Assane parce que boobu jàpp nañ Assane mu daal di génn mu ñëw ne moom Assane lay xeexal Assane lay taxaw ñëw toog ñu tamit nu ànd ak moom soutenir ko muy laaj bi wax ñu koy soutenir nekkete yoo buntu la doon wut buntu la doon wut nee naa la jamono jooju da doon saraxu day laaj day saraxu Françoise léegi lay live sax di saaga nit ñi di am lu ma di kii wala di reewantal François da doon live bay nelaw day live bay dallu ñu ne ko eh saa waay xoolal demal tëddi couper live bi ba suba da doon live bay nelaw on est on on commence à faire des lunettes on commence à trop durer ici même trop durer ici moo tax nag yow maman Aïcha. so fi nekkee di konkon loo ko di dof-dof yak sa ñoo ngeen ba sa dof yoyep dina leen wax seen baaxu maam dina leen wax seen baaxu maam xale su reewee wala mag su reewee tam mu koy wax mbakkuus dina leen jox mbakkuus dina leen wax seen baaxu maam vous foutez de la gueule des gens foutez de la gueule des gens quoi ñeme la lu ngeen di def ngeen bàyyi seen faux profil comment vous voulez combattre le faux dans le faux vous voulez combattre le faux dans le faux. Hein? Comment c'est possible ça? Vous que qu'un faux gouvernement, un truc de Kibikina, et vous voulez le combattre dans le faux. Comment peux-tu combattre le faux dans le faux? Malen koy laaj. Nit ñi wala ñëmé lu Nous def taxaw combattre le faux par le faux. Faux profils. Hein? faux profil, faux faux hein? faux faux communication faux yakar. le faux ba c'est ay fausse digène ay digène yu xéssal faux angle. faux cils faux cheveux le a faux Les faux et ils sont venus pour combattre le faux avec du faux hein Fama Diop Fama Diop nee na ko John Joy contrat déterminé yaa ngi yow nag wax nga nag maladie mentale yi gis nga genre tur yooyu noonu man dama leen di moytu xam nga lu tax may moytu tur yooyu noonu euh, Fama Diop tur yooyu noonu c'est des malades yaa ngi comprendre ay malade mental lañ ay malade yu nu solal yére poudre leen wis si tuuti parfum du ñuy toog si ruq bi di la ñewantal ñewantal la jalouse la soxare la bëgg la laal bëgg wax ak yow xamu ñu def légui ils essaient juste un petit motif wala dara pour nous jëlee kay utee prétexte légui genn pour mën la saga bobu non le fait que nga ñew sama live nga tuddu turam comme sumarakloche legi ko tuddé ni suma raccroché légui mën na dugg live légui waaw dooma xaraam ba mbesil bi ma ngi dugg ngay tuddu sama tour gi la ki nangam c'est des problèmes quoi xam nga c'est des problèmes moo tax genre malade mentaux yooyu noonu xam nga ñooñu da nga leen di defal ñaan quoi da leen di defal ñaan xam nga ñooñu fu nu toog rek bu yàlla xam baax na moo tax ma naan la xam nga yooyu noonu souvent da nga leen di tànk xam man joor joor joor joor dama koy du mooy souvent je j'oublie même qu'elle existe dans le monde parce que amul lu ma intérêt amul lu ma bonus amul lu ma dara yóbbuwuma fenn amul lu may jàng si moom amul lu may gis si moom amul lu may apporter amul kii J'essaie de l'effacer dans ma tête parce que Moussiba le le fait que je prononce son nom peut même me mettre dans une guerre. Y'a comprend. comprendre. Peut mettre dans une guerre parce qu'elle est folle. Elle est folle. Wérul. Wérul. Non, wérul. Yaram bi neexul. Bérul. Xamulu. Non, d'ailleurs, moi, doom baba Mais pourquoi kookoy mën a nekk yaayam nag. maman Aïcha su que si yooyu la doom yooyu rek le mën a doomoo te j'ai j'ai honte Comme je kon moo ko waxee dama ko yàgg soupçonner si samay live

j'ai fait une erreur sans sept ans lu nous nu waroon jàpp doomam def ko loolu nous avons poser la question d'abord pourquoi ce dom wala am problème ak gars yi ba gars mais je n'ai jamais posé cette question aussi j'ai laissé passer comme que c'était une femme qui était mu mais après aussi lolo après une semaine ma taxaw ma arrêté parce que man ci ay djabom ça, je n'ai pas aimé Ni ki nga kay xeexal nga gis ko ci sous commentaire mais ni du mak du jigéen nekk sek wax gu ñaaw gi su paré que un moment je me retrouve avec le même sujet que beaucoup de personnes elle est partout malade non Qui c'est comme si de ñëw pour attiser le feu comme si parce que tay gi ni ya ngi ñew wax ma sa problème hein ngi wax def un un un débat même dem si ku si yor même wax un moment su nu doulo quoi elle veut attirer l'attention après une semaine ma non quoi parce que c'est fini c'est une gamme mais les nag ñëw xeexal doomam de parce que fait le montage porno bizarrement a tourné avec l'amour de manipuler les gens de rentrer maintenant dans les lives des personnes ça elle a pris goût elle a pris goût au truc elle a tellement pris goût au truc ba nga xam ni que su koy def dootul baye xel sa ñu mu koy def nan waxante deug Aïcha Diallo se permet maintenant d'aller prendre la folle là bëgguma sax tudd turam kon moko waxé faama jóg dugal nga ma si loo xam ne ni que mooy loolu leer na ma ni que après sama tur gi dinaa dem gis dof boobu noonu yor ko te billaahi dof boobu jiguma dof boobu jiguma du dara saa yi ma tuddee eh, jour bu ma laay valee journée gi sama journée du baax damay obligé mujjee dem tëddi pour que journée googu noon jaa daf may um dof boobu noonu dafa may um wax dëgg fa j'ai remarque chaque fois bu mu live ba allusionné sama sama tur si biir ça a été des jours yoo xam ne ni que après su may tëdd sama xol du neex yaa ngi Ou mal. maman Aïcha Diallo boobu Maman, sa va, sa maman parce qu'elle va perdre ce titre de maman là elle va commencer à entendre Aïcha et Diallo et quand elle va commencer à entendre Aïcha et Diallo là maintenant elle va le suivre elle va elle va aussi entendre plus que nooti le suffixe sanday sanday une fois que ah, yo maman Aïcha Diallo quand maman a su deñee ben ba nga dégg mooy commencer à dire Aïcha Diallo dina sanday lu bëri nag. dinaa sa ndey lu bari dinaa sa ndey lu bari léegi kooku doon ba tey non mais maman malaan sa maman Aïcha Diallo baax na foofu laa koy yemale quoi nit kan ko topp ba mu sës wax naa la sama bopp xam nga comme bopp wax naa la sama bopp kom nag foofu nag laa koy yemale quoi Il la koy yemale te tok di la déglu nak ba nga daal di ñëw dugg MV Foot de ko ñëpp sax légui faux profil yalla te ñetti faux profil Aïssa ko ak domom George Y'a nga comprendre mok George ñoy sen faux profil avec euh, encore l'autre Bakar là le le le con de Bakar. je ne sais pas Bakar là Maintenant,

c'est pour mettre la feu lu leer jugunu si lu ko leeral jugunu si luy defal jugunu si luy baaxal jugunu si c'est pour que su la saagee nga mën a attaquer la mauvaise personne wala nga daal di dem dans le mauvais truc ñoom ñu dem toog fële di reetaan ay seytaane leen c'est des satans qui sont venus pour allumer la toile man nag su ma demee ba ba repérer nag groupe satan duma seppi wonte suma ñëwé damay saw sen kaw damay ñew saw parce que da ngeen di tal ndox len sol ndox bu gëna jégué saw je vous pisse dessus lolu ba clair yow nak Aïssa Diallo comme que né nga da ñew xoma légui da nga changer sa défendre sa dom bi contre ñew défendre khalifa diiné dina la ci bolé sa taatu dom yi encore nga am loy défendre néna la so deful attention waxul ma sa taatu sa dom bi yow ak say taat sa sa bopp yow sa bun bi si boppam na nga ko teg parce que ñoo la gën a dee sa yooyu ngay def comme ba nga doon xeex di ko jaay nit ñi waaw maa ngi fii maa ngi ñun ñëpp moo wane aux États-Unis fii ñu nga nekk États-Unis la nekk États-Unis nu ñëpp yaa ngi comprendre boobaa suñu defante dina neex ma xool lu ngay ñot di gaay ak lu nga doon ñot di gaay nan nga ma koy ñot dek nu ngi koy ñoddante yaa ngi comprendre c'est là où ça va être <laughs> ay commentaire ay commentaire yu neexaay ay réewa sonn quoi sama whatsapp bi xaaral ma dugal whatsapp bi はい、ラーメンの僕を終わってはい。で、はい。朝のモベにも。うん。 Aïssa Diallo Koura Françoise Hélène Mati Trois Pommes ay jigéen ñi yërëm leen ñu jigéen ñi dëkk les femmes ay les femmes les femmes qu'est-ce qu'on vous a fait hein la ligue des femmes Yo comme les ni fait wal fee nek doxal dëkk bi au moins andi loo comme les Nini. eh ces femmes non mais c'est pas normal quoi

Mm. E, bul tiit nag bul dara xame woo ma ko mais tey dama lay wan ne sa sa yaay mun na gis nga ñi may saaga fan yi yëpp dégguma ko woon parce que seetaanuma leen woon mm. dama leen di yëgal na man maa leen dàq saaga maa leen gën a suur leen gën a taxaw dégg nga yéen ñi may saaga démb man dégg loolu dégg loolu tuma leen ndax gëj na seen live sax ba dugg si ba si ba nan li ak li dem lañ ma wax sama nopp bi ma dégg ko ba demuma recherche sax live pour dugg si xam nga luma len di yëgal yeen ñi may saga yeen ñaar di may saga sen tuunu nday de nga bax li ma len wax say su ngeen yeewoo seen toj naa toj tok tok tok cot coppreetu daj dëjjaw nday de ngeen bu bax li ma len di wax heure bu ngeen yewo yow moomu nonu nga gatt melne man je fais un mètre quatre vingt deux sama frère bés bu déggee nga koy saaga dina la sa lëfal ndey yaa ngi France mu ngi France moo la fi jiitu dugal tëgg jéembe moo la fi dugal man tëgg jéembe dugalu ba sama frère tëgg jéembe dugalu fi depuis quatre vingt mille neuf cent quatre vingt quatre mu ngi fi keneen ki soixante dix neuf la fi ñëw ku gën a tuuti quatre vingt cinq la fi ñëw man maa fi mujjee ñëw te man rek bu ma a gisee dinaa toj sa lëfal ndey dégg saaga yi lu tax du ngeen dem ci Moussa Camara ngeen saaga ko lu tax du ngeen dem si góor ñi ngeen saagante góor ñi ca góor ña ja jigéen ña ca jigéen ña caapaa ñaanaa kut sa kut sa kut sa bi kut sa góor ña doomu aar yeen doon di nëbbatu di saaga nit ñi di wax di def yow fii nga ñëw ma ma jox la sama profil nga dem di saaga Moussa Camara Moussa yaa gën a li ma lay wax nii ndax nah, musa, musa seetaan Moussa Moussa Camara ne la kii eh, eh, eh, bi de xam naa kan la xam xaw ma noo def ba am ko boo nekkoon nit di nga xam li mu la wax doomu yow amoo dara la may def sama kii boobu nga yore ba tey di ko def di ko changer tour di ko changer tour di ko changer tour di saaga ni ñi ñu ne man maay faux profil nekkuma benn faux profil dama leen di yëgal dama leen di yëgal yéen ñaar ñooñu di may saaga laawa wax dégg naa saaga yi nag mais dégluwuma leen seen tuuru la fal ndey heure bu ngeen yeewoo seen coppreetu datam ndey dégg nga kenn ki mënul wax ndax yàllaa tax xam lu tax mu téye làmminam bi dégg nga keneen ki mel ne doomu jàngir doomaraam yi ngeen doon dégg nga bu leen neexee ngeen génn posté ma man xool dama suur ah démb tey soog a ñëw France taxul ma suur dégg nga boo jógee naan sama papa sama papa euh, euh, kii la woon xaw ma nan la koy waxee euh, xamatuma sax nan la koy waxee toj seen job bu ndey nekk fii di saaga nit ñi di saaga jigéen ñi di saaga jigéen ñi man ku ma ci saagaat daa toj sa lu fal ndey daa ubbi sa jottu ndey yow heure boo jógee paa am nga liggéey bu heure dugalee caabi oto oto waa gasab yooyu yow dugal ko ci biir kii bi maa yow ñoom nekk France xam naa xam naa service yi bi nekk gazon pour affaire chauffage yi boo heure boo dugalee euh, ca caabi oto bi rek di démarrer rek démarrer nga ko ci sa lëfal ndey boo wàccee ci sa lal man bisimilah laay wax ba may wàcc de cëpp dem di sangu ji yow boo wàccee sa lëfal ndey heure bi ngay sangu ba bi nga xam naa doo sangu heure bi ngay naan sa café ba bi ngay dugg ci oto bi ba bi ngay dem dem sa sa liggéey boobu temporaire dégg nga temps horaire bi ngay dem def ñu lay fay par semaine nga jëm def ko ñibbi si waat sa tuunu la fal sa indi maaka xaw ma man saa yu yàgg sa cottu ndey doomu xaram bi nga doon dégg nga seen tuunu ndey yéen ñaar ñëpp seen diggu la fal ndey da ngeen da ngeen man ko di ma saaga te yëguma ko woon seen tuunu la fal ndey man sama yaay dem na cinq fois màkka doomu xaram yee mu nga nee toog ci kër sama papa sama papa mu ko teewoon ba tey mu ko toog sama papa cinquante huit suñu taawu kër cinquante huit la juddu sama papa cinquante huit fa yaay ba léegi mu nga fa te boo demee këram nga xam ne du du këru coono doomaraam yi ngeen doon ne nga di xam doomaraam bi nga xam ne yàlla dafa téye sa làmmiñ bi sa tuunu la fal ndey yow jaam nga doomaraam nga ndax yow ñi la defal teraanga yëpp saaga nga leen Facebook ñi la defal teraanga yëpp saaga nga leen man maa la ketal fii doomaraam maa la ketal fii maa ketal maa la njëkk a yónnee bi ngay def sa anniversaire man yónnee wala sax premier euh, euh, septembre vingt vingt vingt vingt huit août laa la yónnee xaw ma vingt neuf j'ai toutes les factures dégg nga ñi ma ci sama loxo bii la jaar kenn rek moo jaar sama loxo muy ko nekk Dakar dégg nga xali yi maa tax mu jox la man maa ko ñaan moo tax mu jox la Sonko duma maa ko mu jox la doomaraam bi nga doon tey amuloo dara lay def lu dul di ma saaga waxuma loolu ma toog di waxtaan ak yow sama chèque cadeau yi parce que ma damay liggéey voilà ça ce qu'on kooku ngay coalition bu que des liggéey il n'a qu'à sortir ses tickets restaurant avec ses chèques cadeaux ils tous les six mois damay am des chèques cadeaux preuve ko photo des ko Facebook a gis la j'ai des chèques cadeaux je peux te je donner mais ne me force pas à sortir parce que man isolement le 29 laay pour reprendre euh, visite médicale pour reprendre mon travail su fait Je la le téléphone bi ma le téléphone bi ko le 30 def ko accusé de réception le 4 di ko le le le le le le ana naka ay da borom daka bu neex bi borom lii duwul fi say duul fi say yëpp ba pare ñëw indi indi ay problème ah yow man bu ma waxulee war ngeen wax seen tuum la fal ndey heure bu ngeen yeewal seen dina seen tot ndey laa wax dégg nga góor ña ca góor ña jigéen ña ca jigéen ña lu tax dema leen ci góor ñi yéen Moussa Camara bu fu mu jégal seen ndey lu tax du ngeen dem attaqué ko dem leen attaqué Moussa Camara seen tuum la fal ndey waa heure bu ngeen yeewal seen datan ndey

soo suurul rek dolli. Ousmane Nox mais xam naa dinañ ko indi problème parce que am na benn fii bu ko noonu Ousmane ne fait pas ton propos ma ne ko eh man xamuma la je te connais pas tu es ami avec euh, tu es ami avec euh, euh, l'autre là comment il s'appelle encore Ousmane Nox bi man je suis ami avec doxal sa li ngay dox ak moom man ma dox li may dox ak moom dégg ma ñëwul sa page la may ma pour ma live wala pour ma dugg fa wax. mais dama doon sëg ba gis nga démb bu ma déggee lii Moussa tey fii suba bu may liggéey xam lu ma liggéey bi ma wàccee dama sim sangu rek sol sama rob bi yaay të noonu rek ma gis Moussa euh, Ousmane Ndong bi di laaj ci laa dugg ci biir laay fam ah kenn xamewu ma saaga même ay xale yu góor la j'ai des amis xale bu góor bi mu ngi nii ci sa biir laay ah mu ne ma mu ne ma ay rek kenn xamewul ma ne ko voilà bi ma paree làkk woo ma ne ko baal leen ma parce que li kenn xame mais li ne ma je te tu te comprends ah yéen nit yi di tëdd di nalaw bu guddi jotee ñu tëdd di nelaw ngeen di leen saar xadi may tuuti damay wax xadi may tuuti damay wax xadi <coughs> may ma tuuti damay wax yaa ngi ci live bi déglu si live bi damay wax yéen eh, eh, mun ngeen nekk mu ngeen bu nit ñi tëddee nit du ngeen du ngeen tëdd bu nit ñi bu ñeen nit ñi xëyee liggéey ngeen di tuul naa damay liggéey yéen di ngeen di liggéey minute bu nekk yéen a si téléphone yi yéen a ngi si groupe yi si fu nekk di wut di ubbi si di wut ku ngeen ku ngeen kii ñi la fi defal teranga yëpp ñi la fi defal teranga yëpp waaye sama téléphone bi ñëw na waaye beneen téléphone ba ñibbi na dellu na maa ko gis dellu na ni doo ko te doo ko téléphoné yow de doo ko téléphone nga ni téléphone bi ma la may xala dama la photo ak téléphone bi nga téléphone bi baaxul dama la photo nga yor ko xam nga boo walaakaana moom walaakaana rek lay doon doo ko defar ba mu baax doo ko sang ba mu baax doo ko sang ba mu baax doomu raam yi ngeen doon lakk la ngeen yéen da ngeen foog ne yéen yéen nañu kër yéen mën nañu ñëw fii dëkkuñu ci studio sama télé yow Omar Ndiaye damay tudd sa tur yow sa télé bi nga yore sama télé de chambre d'ami sax moo moo moo moo ko ëpp sama télé bi nekk chambre d'ami sax moo ko ëpp man sama télé ça fait un mètre soixante un mètre soixante cinq bi nekk sama salle bi nekk sama colgate colgate xaaral may leen colgate ah. yeah mama yow kay barkeelu foog nga vidéo soo soo oyofee tool soo demee ba nga gis ni ko oyof nga tool tabaarkalla macha allah tey fu nga dindi lu nekk sa mbagg yi Moussa Alaaji Moussa xam ku dugg si laay fu Fatoumata Danso ku dugg ci àlla laay om Moussa Camara rek ñu ñu di lay saaga ndey di lay wax lu tax ngay dem foofu mais yow yaa ma jënd man sama kër yëpp fi la sama kër yow yu fi la jënduma carte cinq euros ah sama kër yow yu fi la toomaraan yi ngeen toog ah de burki démba mu am Birama moom moo partagé Fatoumata Dam ma dem bind fa ñu dem jël benn tubaab xaw xam ko seet nañu ba sonn sama turu jëkk xam nga xamuñu ko parce que moi je ne suis pas amie avec ma mari sur Facebook mm. loolu ñëpp xam nañ ko donc mënuñu jaar fenn ba am ko ñu dem jël benn tubaab defa solol ko ay lu den waaw ñu solal ko ay lunettes doomaraam yi ki am sama photo jëkkër maa ngi xaar parce que xam naa kan moo ko am ki nga bés bu génn dinaa xam kan moo ko xam nga doom neex na maa ngi xaar foofu rek laay xaare voilà foofu rek laay xaare toobaraay nekk ci biir dem Facebook bi di escro escro escro escro escro escro may ma ni dooma raan di duul naan am naa doom dem mu jaral la ba dem ci face ci Facebook bi dem jël benn jooy ne ne teg ko mu jooy pour nit ñi xam pour yërëm la pour sarax la anniversaire rëcc na nit ñi de mais leneen dootul amati kenn dootul keneen dootul am te te dootul amati loolu moom jeex na parce que suñu xol moom moo ñu yóbbu woon ak générosité moo taxoon jox la ko voilà loolu rek la du leneen doo maraam bi nga doon waaw. ah Moussa defe naa xadi dafa bëgg dugg ci live bi fii ci ci ci appel bi en même temps xaar ma dugal ko Moussa bul coupé de mais Moussa dafa coupé non mu coupé de Moussa xaar ma dugal xadi dafa def naa dafa bëgg parce que nii lay koy dugale sax man xadi yow lay ñëw calme si xadi xam na nu muy dugg see fii de xadi yow la bëgg nga wàcc. <laughs> sànq ba léegi moo lay naan giifal giifal wàccal wàccal xadi daa bëgg nga wàcc. loolu moo tax xam na loolu. Hmm. am na loolu sama activité def may daane loolu moom moo tax. Hmm. voilà doomaraan ñu doon ah ñi kenn mënul mucc si ñoom. Hmm. kenn mënul si ñoom yéen bu nit ñi xëyee ñu ngi wut seen ñu ngi wut lu ñuy dem lu ñuy dem suturloo lu ñuy lu ñuy dem def lii def lii man sama téléphone bi ñu jël ko. yóbbu ma fees bu ñu tëj ko sama frère de loin këram la toog ak ma ak doom ñoom ñoo ma ko doon defal ñoom ma ko defal ba téléphone bi baax léegi amatuma sax mënatuma dugg mënu ma bind mënu ma partage mënu ma def dara mënu ma def dara. Parce que sama m'a aidé, la table, Hadi, elle m'appelle. Hadi, non, je pas te. Je, attends, je te Comme nous les rajouter, parce que dama énervé. Mais vous me le dites, demain, couper Moussa. Tout le monde veut couper Moussa. Domram. Tchotundaï, Domram, Yendom. Imbécile, de merde. Hein? Domram. Moussa, il faut couper. man maa ngi di di déglu de man kay saa gi kay nee maanaam ni que maman Aïda Bon Argent mooy vidéo dama lu may wax man déglu rek man noppal lu ma doon man man waaye ma ne taj du la xool. mooy mm-hmm, ah, mm-hmm. ñoo ngi fi de maman ñoo ngi fi de boobu ba léegi on est là on est là fekkee ne lépp ku fekkee wul da ngaa gumba moo tax yow daal naa la. soo oyofee rek nga may ma ma gunde ma ma gunge buum bi. yow ngay dawalal dara dara dara dara dara. dawalal di dajale di duul di dajale di duul di dajale di sof xam nga lu gën a bon. Hmm. góor bu sof góor boo xam ne yow vingt cinq ans nga am. Hmm. dem nga Côte d'Ivoire dem nga hmm. Haute-Volta dem nga xaw ma fan dem nga xaw ma fan ay man de man mi la mag munu mus maa dem dëkk yooyu yëpp waaw ma nekk naa Sénégal ba jóge fa musuma tukki dem Mali sax dew ma fa. mais loo loo xam ah, loo xam loo xam ah, si voyage imaginaire. voyage imaginaire l'eau, c'est xam tamit ah. fune fune dem nga fa fune dem ah dem en plus di di duul di duul di indi ay duul di yóbbu ay indi ay duul di indi ay duul balaa la ma wax dafa ne bi de bëggul wax ma ne bi yow di nga ko indi poste ko nekk kali naka ser gis na te live boobu wóor na yàlla quatre heures vingt trois parce que parce que man je me lève à quatre cinq heures du matin moins dix parce que damay cinq heures moins dix le temps que may yeew ma def sama garab yi cinq heures ma jóg sànq quatre heures vingt trois laa yeewu jour boobu ma yeewu rek Mariama Sibo Dianka moo ma yónnee Eh, les les les les les les les photos yooyu mu ñuy photo mu yónnee ma ko mu ne ma Aïda je sais que tu dors mais après tu verras man xool bi ma le matin rek et j'ai vu que Aboubacar m'a envoyé un message six heures du matin vous bu may solu non parce que j'avais prise de sang ma gis kii bi ma la je vais l'appeler je vais pas lui envoyer un message je l'appelle directement Mon woo ko directement dama ko woo rek mon ne ma ça va ma ne ma ne ko dégguma la dee mu ne ma dama feebaroon mu ne ma rek mu ne ma ndax gën si woo jànke ma ko non ndax yónnee na ma ay eh, kii de ma dafa demoon ci live ñu ma doon comme ça je lui ai dit man sama kii nu ma ko defee dama ko ne ku ma neuf personnes yi la groupe bi neuf personnes yi la voilà ñun neuf yi kenn mooma ci saaga mu ne ma kan nga kon danga ma koy jiiñ ko sa mouche noonu laa demee ki se sent moo ba sa mouche mm. ma ko mais ma la wax kenn du ma ko dindi neuf personnes yii ñu bokk nii ki ma saaga fii la bokk fii la mu dellu de dem euh, euh, euh, bouleversé affaire yi jaxase ko Ousmane Tounkara mii tey am na benn guddi mu ñëw woote si ñoom Sali Diop noonu a war fekk ma fa mu ñëw fekk muy saaga Ousmane Tounkara Ousmane Tounkara dafa dugg di wax rek ma ne ko Ousmane noppil kii kii moo ko may doole pour mu ñëw euh, mm, l'autre là moo ko may Omar Dia moo ko may doole pour mu dugg si waa bu wax loolu ndax yéen a ko xaw ma lan yéen a ko jëndal téléphone moom tam mu ngay ñaan ndax téléphone du ñu waa wax ji wax joo xam nga man ma ne pat Ousmane Tounkara faf sax daal génn moom dem yoon ndax xam nga moom góor la génn dem yoonam voilà. man nag yi France gi voilà par semaine man j'ai CDI combien de jours de j'ai pris là au mois de mai là j'ai pris les 15 jours de 2019.

René, yow boo gisee ni sax di ko xàmmee. mais laay boo di ko xàmmee. xaaral man ma def ma yow yow meloo neen yaa ngi nëbb yaa ngi def ne. saaga nag gannaaw foog ngay saaga ci gannaaw doole ci ngay saaga wanewul nga saaga nga saaga. non duñ ko def ay tapet leen ay tapet leen du ñuy làqatu di saaga. ki nekk France moom na génn mu mu saaga. waaw comme si ba ma la ba la waxee na la dindil sama famille. sama famille mi ngi foofu tu les appelles un à un nga xool kan moo ci sama frère boo ko woowee moom dina la woo moom taalibe cheikh la dina la wax wax bu set bëgguloo dégg mu téegal ñëw fekk la naan téegal sa ndey du ko def de du ko def de fii la ñuy toog di saaga jigéen ñi waaye yu ñu saaga seen morom góor su ñuy saaga seen morom góor yi ñuy ay defayaa lañ ñu dem si seen moromu góor yi si jigéen ñi rek la ñu ne Fatoumata Fatoumata Aïda Bon ay Aïda Bon Argent hmm. Khadiba Khadiba loolu loolu am na lu mu waxoon sax am na sax ma am na lu mu waxoon sax loo xam ne wax nañ ko mais di diw di indi ay tuul di dajale yéen fu ngeen fekk ne ci baax rek ngeen def saago ku xam nga la eh, xam nga affaire bi lan la Moussa uh-huh. eh, wax naa ko si euh, laayu fu l'autre là euh, euh, Norvège Ousmane Norvège ne xam nga lan man xam ma kan moo may saaga mu neex ma yow mu saaga wala Fatoumata daal Fatoumata xam nga bu ma saagaan balaa muy pare laaj ñu jël ko yóbbu ko yow doo dem yi Moussa Camara dem YouTube Assane Diouf dem YouTube ñëpp ñi baax ñëpp ñi ngi dem YouTube mais ñoom kenn du jël seen laaj yóbbu ko YouTube comprendre nga loolu moo leen naqari voilà mais saaga yu amul direction saaga yu amul direction du dem YouTube de ah. saaga ñoom ay saaga problème mu jàmbur la nii saaga ñoom tey jii ñoom ñëpp di saaga du seen problème bu bopp moo tax ñuy saaga tey dañoo ñëw ay problème mu jàmbur si leen dugg bëgg see jaay naa fekk te ba nunoo wax ba léegi kenn mënul xam ñoom lu ñuy expliquer kenn mënu ko xam mais lu wóor ba wóor mooy yooyu noonu doon am dootu fi amati se fini voilà. man de faale pour heure daan pour daan quoi. am yooyu noonu ah. te boo hmm. sonné ba sonam ci à la police police xaw ma criminal parce que Marlène Schiappa moom moo yor affaire boobu donc xawma ko woon na ñëpp keroog fii moom France la ne laa nekk hmm. yëpp dinaa ñi am yëpp mu jël jox ma photo yëpp je mets téléphone ma dem yóbbu ko police porté ko plainte xaw ma nag hmm. ba fan la dëkk laa échange de numéro téléphone mais daa on peut on peut mun nañu repérer nit ak numéro téléphone am na numéro téléphone dinaa ko joxe police comme ça comme France la dëkk man France laa dëkk ñoo nekk ñaari nit yoo ne yu nekk ci Facebook bi dama duma duma bokkuma ci ñi laay fi ñu ñuy dem police voilà ñu dem mhm. police comme ça ñu réglé ko wax ma lan la ndax dama ko reyal taawam wala dama nangu euh, euh, jëkk jëkk xam du ko jigéen peut-être nangu mu jëkkëram donc voilà ah, donc ah, on sait jamais de on sait jamais on sait on de mën na nekk góor jigéen de on sait kaay ma kattan la kaay ma kattan la kaay ma kattan la si gannaaw clavier bu lëndëm nit bu lëndëm. nit bu lëndëm kaay ma kattan sox koy génne ko nit ñi gis ko génne ko nit ñi gis ko. waaw yow non man man c'est que man man c'est que daal man raasu abo yi jaaxal nañ ma quoi ay abo yu wow bët nag man ñii daal ñoo bëgg ñoo bëgg ñoo ñoo ñoo bëgg ñoo bañ lu baax seen moroomu tante yi seen moroomu yaay yi rek leen nekk di lijjanti seen taati si réseaux sociaux mais ñii ñoo yàqu. auzu billahi mina shaytaani rajim ñii ñoo yàqu seen moroomu tante yi seen yaay rek la nekk di wax seen musiba. yow yow man ku ma fekk ma ma tëdd kii di ma kat ma dina ma ne yow ma encore mu ne man maa doon wax euh, kàtt bala Khady Baro daf ko ndogoon man maa doon wax ci groupe bi naan Khady Baro bàyyi xale kii xale ah, loolu musul am si àddina musul am musul am ah man bu xam non mais attends yow yow foog nga ne ñun maire yi yow dinañ ubbil sa suñ tata yi yow nga dugal ci sa kooyu xale bi. doomara ah di ñu ñëw daal taay taay taay da doom gel bu bees Fatoumata Danso sama sista lañ jàpp taay nii diw ko bër bi quoi moo tax nu toogoo bàyyi un deux trois de am nga wax naa ay temps génn naa fi ne leen c'est des pervers gars yi dañoo sonn nañ wax ba ma koy wax ne ma non Moussa moom daal dafa neex rek ay eh, waay il est drôle ma ne leen ok da ngeen jàpp ni que dafa moo ngi leer. nee naa la c'est des pervers ay nit ñu sonn leen combattre nu dara ay jigéen la ñuy ñëw nax pour xool nu leen di user. yow boo bëggee jubóog François demal ko jubóog François këriñ téyewu la demal François mu ngi noonu François dama mu ngi foofu taxaw moom ku ñëw mu tégal sa ndey demal demal jubóog moom boo bëggee jubóog moom ak li nga ko fi defee demal jubóog moom te am na capitaine bu fa nekk capitaine baa ngi lay xaar te capitaine ba moo la gën a baan nga lay xaar foofu demal. Eh, eh, eh, moo tax ngay neexaat di dugg si seen live di may ay kër di may lii di nëbbatu di wut ay foofu di di nëbbatu dugg seen live nit ko am jom dina def lool. ah man xuloo naa ak yow bana la yow kooku dem na ba jooy ne la bàyyi ma mais bàyyi ko mais boo bëggee juba moom c'est pas la peine nga jël Fatma Fatma te def ko sa pet noir ba pare boole ma ci. te képp kuy seet ngeen may wax naa naan ñu ne ku yéendu ku yéendu rek si live Fatou Massa Ndiaye rek sa nangam taanu ndey. ah quand j'ai discuté ba ci ma ah ma ne ko waaw ah, yow na ñun ñëpp la saag. yaa yaa def ah? ku yëndu wala ñu nekk si live bi wala ay affaire de kii yéen ñëpp mais loolu seen tolluwaay la rek xam nga à un moment gis nga suñu pareek ñoom si lii nii ba xamal leen seen point comme nu ma ko waxee woon ay temps mooy lan du leen wala du mooyu danoo wala jàng di leen aju. wóor na yàlla musaa ba ma génnee si yëf boobu laa ca pare. pare ci aw ma ci kenn wax wóor na yàlla maa ngi taxaw sama tomb laa taxaw aw ma ci kenn wax kenn dalaa ci waxal muy Aliou Diouf te Aliou mii sax gëj naa koo dégg wóor na yàlla ba sànq noonu bi ma defee si live bi dugg ci live kële gis nga ko dafa dem Facebook bind na ma tooñ euh, mere naa la donc tu vois da mënuma ko ndax mënuma bi donc ko fekk gëj naa dégg Aliou ah mais jaxase nit ñi jël Aliou di ma jaxase ak moom jël keneen a keneen di ko jaxase jël ma di Fatoumata Danso elle a fait que ma m'ouvrir du ma ko mere dama ko ne Fatou dama la gërëm parce que danga ma ubbil samay bët maa tey wax ko. mais ku mu naqaree nag nga kii nga naan ko nga naan ko. mais ngeen ngeen bàyyi ma man dugguma seen na maa ngi mel nag xaw ma fi woon kenn depuis 2017 noonu fu ma neex na laay dugg. dina dugg si Moussa dinaa dugg si affaire Sonko. waaw ah lii coupé na de sama batterie xaama branché ko taf taf. bàyyi ma xel sax ma branché ko chargeur bi. Oke, hmm. Okay, tarako. battery bi mooy doon man gisuma sax moo tax lii ndeysaan maa ngi c'est que tablette bi j'ai pas l'habitude d'utiliser démb si guddi ba may tëdd branché ma ko mu quoi minute demi mën ngeen woote waat képp kuy rek nga def Euh, intervention man instant bii nii live bi sax comme nu ma waxee maman ayda sax mujjee naa yàq live bi si man voilà parce que instant gi jël na live bi yëpp mënatumaa wax maman Aïcha tey Aïda ay maanaam sax Aïcha maman Aïda tey daf maa daf maa jëlee kaw jële kaw bi mooy xam nga nit ku tàmmul defante nit ku tàmmul mer nit koo xam ne musoo koo gis si ay affaire de xuloo ay affaire de def su xëyee benn bis nii rek nga daal di ko dégg nag si tànkum defanteeg tànkum aaloo ki saaga ki wax ça veut dire que ni kooku noonu sës na sës na nag waaw ah ok ah, ñoo ngi duggaat waaye maa ngi jégalu sama tablette bi moo jékki-jékki rek fay wàññi leen live bi affaire bi day def retour. ah man wàññi naa allo. allo salaam salaam salaam salaam Moussa Camara Yile. kooku Khady Baro. Khady Baro nga mu bon tey mais bi dafa yàqu nag li nga wax rek a fi dafa yàqu ci lu bari. ay mbalik ay kafaar ay ump ay jargoñ ay doomi mbere kelle ñooñu waruñu leen dugal fii quoi dañuy yàq fii quoi. non mais xam nga xam nga xam nga suba set setal baax na. set setal yàqul dara baax na si kër quoi nettoyé waa tuuti génnee mbalit bi. mais il faut ñu nettoyé parce que yow Moussa Camara ngeen baal ma man jàmm moo ma indi ci Facebook bi. man xaw ma fi kenn yàgg naa ci Europe. xaw ma fi kenn maa sama jëkkër maa ngi samay doom di liggéey sama liggéey wàcc dugg sama kër laa xam. Mhm. live yi may def ay de bon argent ñu doon wax sànq ki ko xamee. Mhm. ma laay ba pare xam ne kii fépp fu ma laay dee daf dama koy gis sama biir live. Mhm. ma toog un jour rek ma ne ndaw de heure bu ma dee live day xaaral ma woo kii xool mooy kan ki laa ko woo tombe nag mu doon jigéen ji baax li ma lay wax ni am na ay ñetti at ay ñeenti ah. mm-hmm. mu doon jigéen ju baax ma xarit ak moom. ma xarit moom ñu nekk ci suñu rukk nekk ci suñu rukk nekk ci suñu rukk. Mm-hmm. mu dugg nag ki laay bu suñu benn góor mi góor gu baax nag. Mm-hmm. laay mbay laa wax nag laay mbay. bi ngeen bi ngeen saaga. ah, ah ku nekk ak sa jikko. mais doon naa di wax yëpp moo gën seen mbay. ñuy def yenn ñi mu woñu ne la fi yaay boy lii bu leen ko def lii bu leen ko def bu leen déglu lii bu leen déglu lii dox leen seen dox bokk leen ci yéen dégg nga ñu nekk ci suñu jàmm ba am jour ñu uddi seen benn groupe ñu dugal ma ci ma liggéey wàcc ñu ñëw ay dama ma dama xam dugg naa groupe dugal naa la fa ma ne ko amul problème man problème yooyu ma dem ba ci mbir gisuma lu ma xam ma rocceeku ndànk ñëw jàpp sama ñàmbur mais boobu ba fu ma tourné Khady Baro Patal sa ndey Khady Baro lu tax nga seetaan Moussa Camara Khady Baro lu tax nga seetaan Fatoumata Dansokho mais di ma woo ci suuf di ma bàyyi ay audio di ma saaga saaga yoo xamante ne dama naan maaru muy yi ma doon mu taal yi lan mooy ndey ñu gi sax ko jigéen kii naan ko kàtt naa la ñuy xanaa seen koy day naaw na mais yan yan bu ndaayam la seen koy xanaa ay yamb la mm. li laay bay doxal ci Facebook en tant que toogee naa takk sa ndey naa ñàkk sa ndey doo saaga kenn ku dul jigéen Pape Omar woo sa ndey demoo Moussa Camara woo sa ndey demoo góor yi ci Facebook bi woo sa ndey demoo ngeen ne noonu doo leen bàyyi jigéen ngeen ci jigéen koy kar ñama xetu ngemb ñama xetu réegal lu doon soosu doon wax di mukk doxat punchline pour leen nayal dañu ba jigéen ji xam ne ñu xas ñëpp dañoo am ci lu ñu jàpp ku am ci eh. a moo def may faj mukk dox doo jàpp doo mën a toog ci chaise bi di ñu doxat ndayam ba jigéen ñi ñii bala ñuy dee dañuy alku ndaan te gis nga nekk ci chaise bi di saaga ñëpp di xam na ay doomu lakkat lañ ko lañ ko sëkkal bala xoolal malaaka mu leen jël si sax dañuy saaga ndayam te duñ ko tey dangaa la yaakaar bi ñëpp leen saaga ñu toog noonu rek di tàccu naan leen drapeau lu mu leen jaral na xoolal léegi daf ñu koy jaral ba ci suñu mujjantalu sër mu mu yem neex bu jaree xojam ñu xojam seen ndey bu jaree naan suñu régal ñu naan suñu seen i réglu ndey comme ni ngeen koy defee. moom leen ñu seen ay mbokk gënuñu leen. leen ci ñoom ay doomu xaraam tey jii keroog ñu moom la ko ko yóbbee de waaw. donc ñaari xarit may faj nee ko maa la ko yóbbee. ah ma ràññee ah, ba jox ko deux cent ñi muy def anniversaire am ñu mu dugg ci groupe ay dana ma ah. te benn def anniversaire xarit. 200 comme que yow yaa ngi man maa ngi daale lamb. dégg nga léegi jox ma numéro téléphone ma jël moom moo xam nu ma def moom ma jël numéro téléphone waajooju dem ba toog génn rek dem banque jël deux cent euros sama carte dem poche dugal ko fa def ko def seen mignon génn ci bunt poche bi woo ko ne ko diw naa la deux cent euros demal nga dem jëli ko saa waaye dem jëli deux cent euros merci ma ma jël kay du xotti parce que man bu ma la maye may naa la man maa ëpp deux cent maa liggéey deux cent ma mm-hmm. jël kay ñu jël ma kas defu ma dara ma xotti ko mm-hmm. dégg nga ba ma xotti ak kayit bi moom woo ma ne ma jot naa ci ma ne ko kon baax na ba mu ne ma naa ko Mm-hmm. dégg nga man man man damaa xëy rek dégg sa waay ko oh, di ma saaga ndey moom tamit sama la ba pare man dégg ñu ne damaa dem frontière man fi ma dëkk fi ma dëkk ak Espagne ça fait quatre vingt kilomètres la. Euh, bi may jëlee maanaam di dem sama camion maa ngi dem ba Espagne di dugal ko taxi bi ndayam nekk fii ba léegi awuma ci jaay jëf waxuma kenn dara ma mun ci lu ma ne ak lu ma naqari toog ci sama rukk ma nekkal gone gi nag bu génne rek mel ni yaayam xam yi bare da koy mbalax waa ko ci man day sama day futa teg nekk fa di katak katak katak katak katak mais katak bu mu katak xoolal juróom ñaari cot ndayam yi nekk yomal xiyaam laa dem sulli seen cot na di ko katak ci biir man xam yi dara maa leen gën a dee tey bu juddoo Dakar tey bu màggee mm. Dakar ak ju juddoo Paal yow man ma juddoo capital yow. Mm. ay doomu xaram yi béykat la xam suñu juddoo seen cott mbay yi mel ne ay waasu mm. tóoru jëw ñoo toog àndoon bi seen i ñaanlaay seen i kanamu doomu alxor sàcc mbéy kenn demee xaaral gan fere bu maam ñëw ba France ñoo bëgg a fekk ñu fi toog depuis vingt ans quarante ans ñu ne dañuy denc di toog seen cott mbay. seen cott mbay la. waaw oh, waaw fii a ngi toj. te du yëngu yëngu. fii a ngi wàcc ba zéro. mooy ñan. léegi nag léegi nag sëñ bi ñoom ñoo la fi jiitu ak ñoo mën a duub li nga waxoon sànq depuis jamono yi Souleymane xool bi sama jamono yi Souleymane suñ joor Assane Diouf sax ñoo ko fi jiitu. ñun dem xool Assane Diouf laa lay tegal. waaw ñun bañ fi doon Facebook boobu Facebook sax amul. 2009 la toog ñun téléphone fii la ñu fekk. téléphone fii la ñu fekk euro fii la ñu fekk te ku ci nekk xoolal yoruñu ay nday puxus de ay kër la ñu yor nag ñoo ba war a jënd toog hmm. dañu xam loolu nag. dañoo ñu booram gënu toog. moom laa leen di leen ko la tey bu fas a. ñu tabax sax te pareegul ndayam. waaw bu dem ñu tabax te tabax mi pareegul ndayam. ñun dañoo ñëw xoolal dañoo yónni te ñoo yàqam te dañoo yàq ñun ay doom yi am ndaw ak bàyyi lañu duñu ay doomi biiral duñu ay doomi mbere kelle duñu ay doomi dëmb duñu ay doomi noo xoor dégg nga ay baadoole lañ amuñu dara waaye am nañ yàlla am nañ yonent bi am na sunu ñaanu ndey ak sunu ñaanu bàyyi bu fekkee ne dañ na Xadi Baro fu muy saaga bu sa fu muy Moussa Camara di saaga rek fa la Xadi Baro di ne Fatoumata Dansogo fu muy saaga rek ma neex lay dugg ba may jël sama téléphone yi naan ñaata te fekkewul jot ndaayam nag ak man de dégg nga kenn fekkee wu sa yëngu ndayi su ma yemale. kenn ku ma su ma a ak ku ma dul ku ma ci woo nag danaa ruux si sa biir dajaw nday bu njëkk laa koy def jël sama gën liggéey kur di ko si dëbb di tala ndayam a la wax. waaw eh, sa nday bu deewoon wala sa baay dee sax naa suy dëkk eh, eh. ndayam ñëw teg ko nag takkal sa baay lekk ci bëjëg bi. Ah, waaw. lekkal ci bëjëg bi tuuraay leen ko tuuraay leen ko man lan laa leen def man Khady Baro lan laa leen def lan lan lu mooy ngeen ñaan ma ma mu ne ma joxe ma joxe dugg seen paas waxuma fa dara waxuma fa dara toog rek Khady Baro fekkee na ko quoi Khady Baro fekkee na ko yow Khady Baro fekkee wu caapa ndayam fekkee ma kat lekk ay bul ko fekkee de bul nangoo fekkee wóorul xamal ma ma leen damaa am jëkkër sama jëkkër laa nopp gis ngeen hmm. barki ne damay laaj ci guddi gis ngeen sama jëkkër nen ma eh damay dem tëdd nelaw tubaab la lu mu bëgg la de day nelaw day nelaw tubaab bu safee day danaan eh, damay day saa bu jabaram di laay bu dul laay bu safee day danaan dañoo bett dañoo ko jub. fii bu la sa doom bëggee wax yaay da ngay fen dara la yaay da ngay fen c'est pas interdit. Mhm. dëkk bi daa am lu waa ndayam. Mhm. Eh, eh, naan loi Facebook Facebook loi cottu Facebook mooy lan ah. lii lii dafa am lu eh? waaw fii yéen ñi zéro. la Moussa ñii lan lan leen def. non defoo leen dara. xam nga le problème mooy ngeen nekk jigéen rek ñu nekk góor ay gars yi danoo xuuñ bu yàgg lañ jàpp rek de sonn instant yi nag foog leen ni que nag yéen ay dundal jaboot ngeen su ngeen yombee rek nag ñu jàppee leen ay kaña après mooy loolu gars yi na leen jàpp de léegi nag lépp a feeñ voilà seen koo yee waga instant yi dañ ko wokk wokk danoo mballoo mballu ba waga am nga mbalu bi teg ndayam laa la wax doo fa fekk dara doo lépp lépp der gi sa mbaloo nen kooyu rocceeku yooyu. laay mbaye ñu eh? eh? doo laay eh? leen sa doomu góor ah, ñoo ngi fi de ñoo ngi si suuf di la déglu. ñoo génnaat ne nag faux profil ñoo ngi enjoy nag yóbboo na la leer ñoo ngi si suuf di ko bëggee xol yaa ngi nëx eh, eh, eh, seen xol yaa ngi bon fii yaa ngi wàcc. Nafi Santana. waaw waaw. Ah, ah. Won ou courtyard ou ki karons Christ? Moun kise! Moun moun poum tou moun cinde ache ouлем Moun moum kenten nekk leen góor te yor ay kooy yi mot sëkk tey man di yor data nag wala dañ leen di katt ci bun wax leen ma bopp dañ ci bun. ah dañ leen ci bun. du ma ne déet. Ah? du ma ne déet bu fekkee dañ bun na xoolal sama kuur gi laa na katt ko seen nday bun nag ne na sama jàmm man. ah dem faram ndayam yi seen dëjëw. ko Nafi Nafi sant naa yóbbante neen la boobu Nafi jël nga boobu yóbbul ko sa yaay ah ah ah déglul déglul nekk ci seen dund bi ubbi ay groupe yoo xamante ne ay ponkalu góor a fa ne kat nday ñàpp nday kat nday ñàpp nday boo duggee ci bi kat nday ñàpp nday kat nday ñàpp nday kat nday ñàpp nday dañuy kapanteel ñëpp xamuñu leen àdduna du yàgg yàgg yàgg ba nga tëdd ak xadi xadi soxlawul sa kooy bu dee kooy rek am am naa kooy bu rëñ sama kër am sama kër ah waa konaas kooy kat li man ah.

toog sa dugub nag woote sa réunion duul say duul ba pare toog fi nga toog naan waaw kii de kii de kii daa mën a duul mais yow yaa dàq duul yëpp yow miy duul bay doxat ndeyam kay yaa dàq duul yëpp dem saram ndeyam bi yow mu duul ba teg teg ndeyam doxat la doxat boo yéen ku dàq duñ sa ndey après di ko duñ di ko duñ jigéen ñi ñu yaakaar ne jigéen la ragal xoolal xoolal kat leen sa ndey bu ngeen pare ngeen ñepp ndey ma génn laaj ba fin du monde mbokk bu laaj bu ngeen laaj boo ngeen ne kaa rek kanaa ko seen bàyyi yow seen xonkalu ndey lay bàyyi yow seen u eh. ndey ayda Moussa. waaw Tarkal la yàlla na fi jàmm yàgg. macha allah macha allah live bu ngeen live Fatick nekk Aïda seen tuunu ndey ngeen ko def. live bu ngeen ne allez nañu live dans trente minutes trente minutes leen ko ci seen job bu lëfal ndey bu ngeen ubbee ci page ne live pour ñu di saaga sama ndey di saaga sama mag di saaga sama ñëpp seen tuunu lëfal ndey. seen caa xam nu ma gën a métti. a métti. Euh, attends xam nga li ma gën a metti lu mooy mën nga gis seen biir ñu ne man dama leen doon draguer ci groupe ba ndeysaan ay waay ki nga xam traite mbaam la jël ñëw xaw ma sax vélo la yëg yoonu suuf si la jël ak yoonu géej gi jur man yaayam laa ne man dama ko nopp nekk ci groupe ba di ko ay de moo ne ko moo ma ne xadi baro sama doom ji ngay man dinaa doom doom doom doom doom yow bu dee kattan la ci tubaab la fekk baax ma ko déggee dama tiit sax man dama bu dee kattante laa wax ci tubaab la fekk baax tubaab bu lay kat tànk lay commencé karaw bopp yi laax di mar daan daan daan daan daan daan daan daan daan daan daan daan nu may doyee koy bu ñuul di di futañ di mel ni karat bu kattandaañ sënax nu may doyee koy yow xam boo sañee doo laab boo puubee doo laab yaa gën a karsan day lépp xam nga ni ko gaal ñëw ba fii xam nga ni taal bi mu toog ci gaal bi laa bu wul de ku faax nday yaa jeexi jël ko jaagu du xam nga ma teg sa kett nday xaar ma dem te ñëw seen seen déjeewu nday seen déjeewu nday ku saagar def sa nday waaw kay arrestation ah, arrestation mm. léegi dañoo bëgg a xam kan mooy arrestation live ngeen ko seen tuunu lëfal nday léegi dañoo bëgg a xam kan mooy arrestation dañ mm. ma woo laaj ma kan mooy arrestation arrestation sama xarit nga ku la laaj nga toj cott ndey nga ci jeex waaw koy mm. génnal leen katt ndey yi ñëpp ñu tas ndey yi seen bukk ñu tañ ndey ñëpp ñu refu na ndey ñëpp Sénégal kenn nationalité kenn ñu refu non mais fulee dimanche ay xëy le 20 dañuy dem voté ji le 20 ak le 27 fii élection France. man damay gëj di voté xoolaat sama kër la ñu ko diya sama kër la ñu demee xoolaat damaa war a voté sama vote la ñu xamal la sama vote la voilà heure boo wàccee fekk di voté bi joxal la ko. sama vote la nekk dañ ma damay madame il faut aller voter te damay dem voté dina xoolal xam nga ñu ba ku may voté le pen laay voté mu ñëw dëgg seen ndey yéen ñëpp ci biti caaw. waaw kay. yu kontaan jaajëf jaajëf. et Moussa maa merci beaucoup. Ousmane yo yeah yeah yeah yeah. up or down. I'm there I'm there. Oh, I'm doing something. I'm coming. Let me finish right away. I'm coming. You want to go check the glass real quick? I just called him. He said he'll wait for us. Oh, okay. Let me finish there. We going. Okay. You know, I'm, I'm just on live there. Okay. They I, close. They close at five. Though. I'm in the way. Let's go. Well, you got time to do it. Let's go. Let's go. Okay. Yeah, cause I just got done doing this job. Now, damn, I gotta hurry up. Get here. Yeah, let's go. But I'm, gonna put my ladder in here. Okay? Put whatever you need, man. It's okay, okay man. It's okay. I don't have any room for you. Yeah, it's okay. I got you, bro. Ah, uh, so I uh, got. comme fii nag wàcc na ba moins zéro cinquante cinq ñu def ko si ay apostrophe ki point virgule la ilaha illallah euh, Nafi Santana message reçu ou pas message su xaw ma nu fa demee Nafi fais passer le message c'est souvent bu leen may bàyyi man kese may yor line bi souvent da may wàcce man su ngeen ma wàccee line bi nekkete yu nee naa leen faites attention amazon yi eh, eh, eh, seeteeteet ñii de fii leen digéré lu nu njogoon ko lu nu añee lu nu ndékk yëpp ñëw na reesee ko fii non mais mama mama ah, yukati ah, bon argent moom oh, oh. tey baatare nga tey lu nga baatare bëri na bëri na doole tey baatare nga disclose ah mama mama tey lu nga baatere lu nga baatere tey bëri na doole tey tey baatere nga ay euro baatere nga ay dinaar baatere nga ay pound baatere nga ay dollar xolal yo daal ugg yi rek nga baaterewul ak ak ak dalasi ugg ak dalasi yi moom yooyu génnul mais dinaar yi sax génn na macha allah tabaarukàlla wuhu tabaarukàlla esa gi nak ah wax gi wax gi mom moy ah lan ma defaru man sa waji mom esa gi nak mom damay ñew yemalé ya ko fi parce que gaay criminel lañ ba pare criminel lañ ba paré luma ci doli dolli ya ko luma ci def yàq ya ko xam nga nee eh, ciin su xasse ba neex amul sapali, neex na ba pare So koy sapali di ko xorom si wala xam nga waaw jumbo gi ni fi la koy jël Nafi naa ngi woon foofu sànq di jooy xam nga nañ ko paas Nafi Santana Nafi Santana yóbbante nañ la yaa ngi comprendre maanaam ni que yéen noonu lay doxee gars yi doon làqatu sax ñu ngeen doon wax sax di làqatu seen ginnaaw di saaga léegi ñoom feeñ nañ làqatootu nu ñëpp génn nañ saaga seen ndey en direct te pare nañu comme ñoom nu ko waxee comme ñëpp nu ko waxee xorom seen ndey cent temps quatre dimanche comme boog nag instant gii nii la e est dans votre comme avons nga ko waxee instant eh, gi seen yaay seen yaay Françoise est en vacances su ñibbisee dina fi fekk liggéey daas leen lépp ngeen what the fuck <laughs> yo you <laughs> saw yeah she how we wide open man damn oh this is America yo guys we do like that next time you know ñu uh, nous noonu ba en beneen bien en live di lay ñaanal yéen ñëpp képp ku si nekk fu mu nekk yàlla na ko yàlla samu. yal na yàlla def lu gën si yeen yal na nu yàlla musal si seytaane musiba ak balaa nu def noonu ba si beneen waxtaan xam nga beneen live te di lay ñaanal yàlla xam nga musal leen si xeetu Françoise Hélène yeeg François euh, xeetu Coura Macky yeeg xeetu nu ngi koy waxeti euh, mooy xeetu illettré yi kon yooyu mën a fen Françoise balaa may dee damaa ami diplôme aw ma nanu woon suñuy diplôme nanu woon diplôme yi lan la nanu diplôme yooyu noonu muy wax lan xamul lan la instant gi nii nag ñoo ngi leen di xaar yéen ñëpp waaw ku si nekk di la ñaanal ku si beneen live naa leen nu def noonu naan peace love and harmony ciao sama gaay